nii nañ leen ziar leen di nuyu xalifa général de des Mourides mun Mountakha Mbacké ñu ngi koy nuyu baax di ko jaar di ko ñaanal jàmm ak mbooleem njaboot gi yëpp noonu la ñuy nuyu xalifa général de Baye Fall ak mboolem njaboot gi yëpp di nuyu mboolem personnel bu Baol Média FM. noonu la ñu nuyu auditeurs ak auditrices yi nga xamante ni ñu ngi bàyyi xel ci 88 point 5 waaye itam du ñu fàtte internet bi euh, ñu ñuy bàyyi xel suñu ay plateforme euh, Facebook BFM international. ak euh, YouTube Baol Media officiel nuyu nañ leen bu baax jaar neen dellusiwaat nañ seen émission jotaay bi euh, ci rajo Baol Media FM studio Baye Modou Diop El Hadji Fallou Fall di ci ànd ak Serigne Fallou samedi bu nekk bu 20h jotee ñu ciy ànd ak ay ndaanaan waaye di ci dalal ay borom xam-xam tey nag ñu fas ci ànd ak euh, Serigne Saliou Dione di président mouvement ànd saxal dëgg moom la ñu fas yéene àndal ci émission bi 20h ba 21h30 incha allah. bu ko defee rek dañuy bàyyi Serigne Fallou Lo mu daal di nuyoo bala ñuy daal di jox suñu invité mu nuyoo Serigne Fallou nuyu naa la. incha allah waaw salaamaaleykum sëñ Fallou ñu ngi lay ziar di la ko delloo euh, di sant yàlla nekkaat ci jotaay bi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi di ñaanal xalifa diine xalifa aada yëpp di nuy waa jàngo bi ñu ngi ziar mbooleem auditeur auditrice animateur animatrice ak mbooleem personnel Baol Média teg ko ci loxol njiit bi mu teg ko ci loxol personnel bépp nag wàccee ko di am mbégte nag di dalal suñu gan ci sëñ yu ñu ngi lay ziar di la nuyu di la wax dalal jàmm ci seen plateau jotaay bi sëñ Fallou yow tam ñu am mbégte lool di ànd ak yow samedi bu jot ci waxtu bi xam naa dañuy bàyyi nga dawalaat ba ci kanam ñu dugg. Euh, jërëjëf euh, Serigne Fallou Lo. ñu lay ziar euh, baye ak si jàmm euh bu ko défé rek comme ni ñu leen ko présenté won non lay daal di doxee euh, seen émission jotay bi la euh muy am samedi bu nek bu 20h joté ngeen ci ànd ak El Hadji Fall mu ci fego ak Serigne Fallo Lo euh ñi ci dalal ay borom xam-xam tay ñu dalal ci Serigne Saliou Dione di président mouvement ànd saxal deug mom la ñu fas yéenee ci émission bi euh Serigne Saliou ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. Euh, jërëjëf sëñ Fallou maa leen di fay euh, ginnaaw bu ma nuyoo ko ziar la xalif général des mourides sëñ Mountakha Mbacké ñaanal ko mu yàgg fi loolu te ànd ak wér euh, di ziar bépp kilifa diine bépp kilifa aada bu nekk ci département bi bu nekk ci Sénégal de manière générale waaye tamit di leen remercier di wax ni li ñuy dooyee média muy informé et former yéen a ngi ci macha allah di leen ñaanal rek yàlla may leen ndam doon leen ndam. dem ba nekk ay télévision yu mag international national euh, ngeen occuper les devants de la scène au niveau médiatique di sant bu baax ak euh, remercier waa ànd saxal dëgg yépp euh, particulièrement fi nga xam ni fa la siège bi nekk muy Ndaam bu Touba Daaru Salaam di leen sant bu baax di leen remercier di wax ni maa ngi seen disposition merci beaucoup Serigne Saliou am mbégte fa seene ànd ak yow ci sunu émission bi di la wax dalal ak jàmm ci émission jotaay bi ci rajo Baol Média FM 88 point 5 comme ni ngeen ko waxee rek noonu la dañuy daal di door li nga xamante ni moo di émission bi euh, sëñ Saliou ci biir kàddoom mu présenté benn mouvement boo xamante ni moom mooy président bi mouvement ànd saxal dëgg mouvement ànd saxal dëgg Serigne Saliou lan moo nekk d'abord euh, objectif bi ba tax ngeen créé ko. Euh, macha allah suñ Fallou question bi am na solo ànd saxal dëgg nag mouvement la boo xam ne bi ñu koy créé. Euh, li ci conscientisation manam éveiller conscience yé nit ñi ci ñu euh, devoir ak droit par rapport à ni war donc objectif principal politique la mais c'est pas de la politique La politique bu basé wu ci conscientisation la lépp loo la ci système politique bi ñu ko nit ñi la war indi ngir askan ngir développement mi contribuer lool nak au passage dañu permettre ñu dugg ci volet bi nga xam moy volet développement moy formation yeeg euh, jang ak jangale beeg lepp lo xam lu jëm ci progresser suñu réew la dal man na ni intéressé na mouvement bi mais objectif principal dal politique la mais politique autrement. Mm-hmm. Mm-hmm amna solo politique autrement euh, bokul ak politique système politique bi nga xamanteni actuellement mom lañuy gis ci réew mi euh, ci buñu ñu ki nga xamanteni modi euh, Serigne Saliou ba tay rek Serigne Saliou ba lañuy jox serigne wàllu mu daal di indi question dañuy daal di wat benen question rek ci bir réponse bobu nga xamanteni dugal nga ko jëmale ko ci walu politique politicienne objectif principal bi moy xex système bi fi nek euh, je pense bien que ne euh, Sénégal diamono ji opposant yi bari na euh, ndax sëñ Saliou mom dafa opposé wu pour mom en tant que Serigne Saliou ak mouvement am dañoo opposé wu ngir fassiyene yéene fi système bi fi nek wala sëñ Saliou dafa nek ci ginnaaw keneen ak mouvement am ñu nek ci ginnaaw keneen. voilà très bien euh lu jëm ci système bobu nga wax. Mhm. ñu ba dañu wax système bi mais xamuñu lan mo système. Mhm. euh système bi li fi indi moy tubaab bi. Mhm. dafa ñëwoon fekk fi ay royaume maanaam ay buur gox bu nekk ñu teg ni ñooy buur yi ñooy ji diriger ginnaaw loolu am na lu ñuy wax la traite négrière mooy jënd suñu ay maam yóbbu États-Unis ñu liggéey ci plantation yi canne à sucre yaag ceeb yaag yeneen ak yeneen buñ jógee foofu yóbbu koom mi Europe mu mel ni kon Afrique li ko war a muy ay nitam

bi ñu demee ba xam colonisation mënatul continuer ñu jox ñu li ñuy wax indépendance mais indépendance boobu daa am ci lu mu tënku li mu tënku mooy dañu indil ay école formel ñu nit ñoo xam ni seen i communes la ñuy doon maanaam ñoom ñoo fi représenté indi ñu administration boo xam ni tant que ñi ngi ci tënku du ñu développé parce que comme ñoom xam nañu suñu développement mooy seen sous développement suñu sous développement mooy seen développement ñoom dañu fexe nu ñu maintenir ci jéng yooyu nga xam ne ci lañ nekkoon mu mel très traite négrière lu ñu gis la man ko dénoncer légui xeex ci colonisation occupation euh, territoriale ak yeneen ak yenen mi ngi ci di ngaj suñu ay ressources di ko yóbbu loolu mënees na ko gis tek ci loxo xeex ko. Mhm. buñ ñu indépendance nak li ci doy war moy bop yi lañu coloniser dañ jox ay nit ñoo xam ñoo ñuy diriger forme euh, créer ñu école bo xamni ña fay nek man dama jappal ay aliéné tubaab bi lañuy doon pour la presque totalité. ñi ci mucc ñu néew la moy presque ñu jaar daara parce que dañuy def ci yow benn idéologie boo xam ne benn gëm-gëm boo xam ne boo ko gëstoo ba ci biir xam nga ne ñoom la arrangé waaye dañuy maintenir ci jugu colonial loolu la ñuy wax néocolonialisme donc ñu xam ni daal euh, système bi ñuy xeex. Mm-hmm. lu fi tubaab bi yàgg indi la ay centaine wala ay ay ay siècle siècle siècle la pour bañ a wax ay millénaire loolu nag pour ñu xeex ko il faut ñun ñu def benn recul xool ñi jiitu woon ci ñi nga xam ne doon lañ jàngale ñan ñoo ci amoon. affrontement bu wér ak tubaab bi ñooña sirum jàngale mu ñu ci basé wu mën nañoo mucc waaye tant que ñu ngi xool ñoo xam ne dañ doon méngoo ak li tubaab bi di di njàngatu ñoo xam ne dafa méngoo ak li tubaab bi indi woon jàpp naan dañuy gën a maintenir ci système bi système bi mooy lu tubaab bi bëggul du fi am bépp koom bu mu doon tubaab bi na ko fexee récupérer bépp xalaat boo xam tubaab bu bëgg ko du bëgg mu développé mm-hmm. boo xoolee suñu système éducatif bi nga xam ne mooy sookul développement bi du ñu jàngale mukk njàngum mag ñi jàngale mag ñi duñ jàng ñu jàngale loo xam ne lu ñu mën a libéré la mais dañuy jàngal loo xam ne ñoom ca Europe lañu toog bind ko ay nit yoo xam ne seeni xalaat ci seen développement personnel lañ ko approprié ñu indil ñu ko transporter ñu ko ñu ko jàng ñun ba ba ba ba koo laaj tey lu muy wax ay Socrate ay Kant ay Descartes ay ay ay euh, comment dirais-je euh, euh, philosophie mag yooyu nga xam ni ca tubaab yi lañ dëkk. seen vision mooy nu ñu mën a dominer waaye duñ jël mukk référence suñu mag ñi duñ jël mukk référence yi nga xam ne mooy euh, li ñu mën a développer ñun donc système bi lu yaatoo yaatoo yaatu la loolu nag dafa tënk ñi fi nekk bi ñu demee ba am décolonisation lu ñuy wax décolonisation dafa am ay si loo xam ne dañu ko signé woon ak tubaab bi mooy que dañ leen a war a fay sax ci li ñuy wax civilisation maanaam colonisation bi li ñu civilisé rek pour ñoom bor la ba tey dafa am leen lu ñu fi defoon pour dominer ñu dañ fi defar ay construction yoo xam ni lañ fi tabaxoon ba léegi ñun dañ koy fay ba tayit it lépp loo xam ni am nañ ko ci koom balaa ñoo wax ak kenn dañuy obligé ñu wax ak tubaab bi muy muy France particulièrement mi nga xam ne ko colonisé woon donc loolu tant que ñi ngi ci duñ mën développé wu donc système bi ñuy xeex ñun système bu yàgg la waaye tamit nekkul rek xeex ay nit système bi du incarnation ay nit déedéet système bi lu fi yàgg la loo xam ne pour ñu dindiku ko faaw ñu xoolaat charte ndayu réew mi muy constitution bi faaw ñu xolaat institution yi nga xamne moy mooy réew mi faaw ñu xolaat particulièrement suñu système éducatif bi nga xamne mo mëna xëc suñu développement mo mëna libérer suñu bop yi suñu xel yi mo mëna tek Sénégal ci rayu développement pour man dab euh yeneen réew yi mais de manière générale aussi loolu dafa war am ci Afrique gep mm-hmm. amna na solo macha allah loolu mu nekk lo xamanteni euh explication bu bu leer la euh xamna dañuy bay suñu fall mu ñëw bu ko défé rek après ñu daal di xolaat Euh, sëñ Fallou. waaw ah, jërëjëf euh, sëñ Fallou sëñ Sall nuyuwaat nañ la xam naa si biir wax yow yaay président ànd mouvement ànd saxal dëgg. Mm-hmm. ànd saxal dëgg nekk mouvement bu mag jàpp naan mouvement international la. Mm-hmm. nekk mouvement boo xam ne dafay yëngu ci lu bari. Mm-hmm. est-ce que actuellement nii mouvement bi pare na pour dem élection boppam wala dafay topp ci ginnaaw kenn. voilà euh, ñun nag gis nañu ni ñu nekk ci mouvement bi. amu ci kenn koo xam ni am na prétention laay wax parce que teg teel na pour ñun ñu mën a samp pour dem élection présidentielle donc kenn amu ci prétention wala ambition dem élection présidentielle 2024 waaye ci candidat yi nga xam ne gis nañ fi gis nañ leen fi opposition bi la gis ni am nañu ay éléments yoo xam ne convaincre nañu seen doxalin ku mel ni le président Ousmane Sonko mooy candidat bi ñu gën a jege mën nañu ni euh, li ñuy prôné ñun moom lañ gis incarnation parfaite ni moom ci moom la féete c'est à dire que bu dee bañ gi ak noot gi ñuy noot ak suñu ressource ni ñu koy dilapider ak euh, ni tubaab bi occuper suñu xel yi moom rek lañu gis ni moo gu lumière bu ñu mën a guider pour ñu génn ci loolu loolu nag day lu yaatoo yaatu loo xam ne boo xoolee suñu géej gi daanaka tubaab bee koy approprié wu ñun mënuñoo amu jën boo xoolee suuf si tubaab bi fu ko neex la yam ay kër soo xoolee agriculture bi ray na ko ngir lan la muy bay moom daa bëgg di ko jaay ca faw ñun ñoy nekk premier partenaire am ci côté boobu bo xolé suñu suñu euh, élevage ñun gis nañ ni élevage daanaka amul Sénégal tour élevage nek lool nak euh, bo xolé service yi nga xam ne moo waroon occupé wu par exemple ci élevage wala agriculture wala pêche dañu fexé ba lepp nek ay këyit nek ci bureau yi amul ay homme de terrain loolu mom ñom reconnaître nañ ko xam nañ ko ci luñu wara war la kon Ousmane Sonko limi wax ci système bi système bi di dénoncer nekkul dénoncer pour yàq der mais day dénoncer pour ñu dajji jing yi nga xamni ni yew suñu administration dénoncer pour dajji jing yi nga xamni ne yew yeew suñu cadre bu mënu ñoo dem ci terrain bi wala li nga xamni ne développement ndax développement du théorie pratique la mais buñu défé ci ñun ben genre euh, euh, ay euh, bureaucratie bo xamni ni ñëpp dañuy santen ci bëri la war dess développement do am ci réew mi kon japp nañ ni mom moy kiñu gëna jégé ci mbirum politique japp nañ sax moy suñu candidat pour l'instant ci jàpp nañ ni candidature am day jàll. Mhm. jërëjëf sëñ Saliou xam naa sànq sa biir wax yaa ngi wax problème colonisation. Mhm. di wax ne constitution bi colonie ñoo ko fi bàyyi ba léegi dara changé mhm. est-ce que kon jàpp nga ne fekk constitution bi tëggaatuñ ko rek. système bi du mën a changé. très bien euh, xam nga système bi dafa transversal maanaam texte yi ñu bindal ñi moo yor suñu réew daa bëri ay tappale. parce que même les agrégés agrégés yi nga xam ne ñoo ay professeurs de droit ak yeneen ku la ci wax tey lii bu ëllëgee mën na ci argument la koy teg maanaam lépp luñ la xas bi ba pare dañu indi benn argument boo xam ne article boo xam ne war alinéa boo xam ne da fecc ce qui fait que fas beeg fecc bi do xam au euh, à la à la à la limite fan ngay wéru pour mën a xam ne Sénégal constitution wala bok euh loi ak règlement yi nga xam moko teunk yu wér la yu deugul la. dañ ko def de sorte que mu approprier wu ci ñi nga xam ne ñoo war a jiite réew mi maanaam ñoom ni ñu ko bëggee ñi dirige réew mi ni ñu ko bëggee rek mën nañ koo taayee noonu ce qui fekk que mënoon ni constitution Sénégal wala loi Sénégal wala règlement Sénégal tey lu ñu war a fiiwu la maanaam ñu war a tënku la ngir mën a développer réew mi parce que lépp lu ñu la wax tey mën nañ ko dindiwaat dañuy wax ni constitution du Bible constitution du alxuraan mais lépp luy dëgg rejoindre na Bible lépp luy dëgg rejoindre na alxuraan kon bëgg ay tapalé ak bëgg ay ay ay ay naafeq ak njuuj njaaj moo tax ñu constitution du bible ku nekk no xey gisee ku nekk nam la arranger loolu je crois que loolu dadul dëgg bu doon dëgg dina melni alcorane bu doon dëgg dina melni bible je crois que loolu mooy mooy mooy réalité bi kon man nañu suñu texte suñu loi ak règlement ñun on est des républicains on respecte c'est la légalité mais xam nañu ni nekkul dëgg gi nga xam ne mooy aspiration peuple sénégalais moo tax à chaque fois ñu changer texte yi Mhm. jërëjëf sëñ salu kon lolo tax chaque instant ñukay changer motax que gis nañ vous assemblée dit bari mhm. parce que kenn ku ak na nga constitution bi mhm. ku ak loi bi ni est-ce que lolo que taxawul ñu suñu suñu suñu loi Sénégal en général nga euh, euh, bu justice bi da li ñu leen mën tudde mooy euh, avocat pouvoir yi ni la mm-hmm. avocat opposition bi noonu la ñoom ñu génne benn école mm-hmm. est-ce que loolu tamit jaaduwul ñu taxawaat seetlu ko très bien xam nga Sénégal la ñuy gis li ñuy wax euh, politique man nañu jël ay techniciens ñu tok xamné li moy mooy li mo wara war a dem mais politicien bi mom nim ko arranger moy ki diriger moy ñew wax borom xam-xam bi ni ko utal pexe moom a changé la nii na ma arrangé man donc day dellu siwaat ci système bi dalay lay joxe ci loxo bii rocc ko ci beneen loxo bi lu mu la ne waaw tey boo léegi mën na laa wax déet lu mu la ne déet tey boo léegi mën na laa wax waaw kon jot na li nga wax dëgg la jot na ñu def assise nationale refonte totale ci suñ système bi nga xam ne lépp loo xam ne loi la lépp loo xam ne règlement lu ñuy réviser la méngale ko ak aspiration peuple sénégalais parce que peuple sénégalais ñu bëgg dëgg lañ mais nag ñu ñu ñu am respect lañ ci nguur aussi ñu am respect lañ par rapport ak doole ji nga xam ne moo leen yàgg a imposé waaye su fekkoon te ni ñi nga xam ne ñoom lañ fal dañoo nekk ci dëgg bëgg dëgg day yomb lool pour peuple bi conformé wu ak li nga xam ne moom la dirigeant yi bëgg mais malheureusement dirigeant yi dañu bëgg dëgg dañu bëgg leen arrangé tax ñuy manipuler population yi loolu nag doonoo la lu fi yàgg ba léegi ndax na tubaab bi doon def bay jënd ay nit jël ay noir ay millions de d'africains di leen yóbbu ay nax la woon bi ñu ñëwee colonisation lañ ñu indil ni mooy li gën ci ñun ay nax la woon ba tey néocolonisation bi mooy néocolonialisme bi li mu indi ba tey système booba la mooy dama lay nax ci heure boo foo yewoo ba commencé gis nax yi ma indi beneen système boo xam ne nax yu nekk ci suuf lay doon kon jaadu na ñu xoolaat nu ñu tënkaatee euh, lépp lu jëm ci loi ak règlement ci mu tegu ci dëgg malheureusement nag tant que ñi ngi jiital politiciens yi bañ a jiital techniciens yi ñi nga xam ne ñoo xam duñu mas a am texte yu baax parce que leen arrangé tey ak leen arrangé ëllëg bokkul ci leen arrangé bokkul ak li arrangé askan bi. sañ saal Saliou xam naa dañ lay bàyyi ak sëñ Fallou su fekkee ne dañu bàyyi la dugg. waaw am na solo xam naa dañuy ubbi antenne bi bu ko defee daal di indiwaat ay question euh, képp koo xamante ni rek bëgg nga ñëw rejoindre mën nga jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 wala ñu jaar ci 88 628 81 08. 88 628 81 08 bu ko defee rek di leen fàttali ne ñu ngi ak Serigne euh, bu président mouvement ànd saxal Deg, mom lañu andal àndal seen émission euh, jotaay bi euh, Serigne Saliou dañuy daal di ñëw ci fi nga nekkon sang ni ci seen and ak ki nga xamanteni modi président Ousmane Sonko ci sa biiri cadre mouvement bi récent bi ben beut la muy Ousmane Sonko président Ousmane Sonko mm-hmm. te président Ousmane Sonko mu ngi ci kasso bi actuellement. président Ousmane Sonko tamit parti bi nga xamante ni jiite woon na ko muy Pastef fi mu toll nii dissoudre nañ ko maanaam jàpp nañ ne existeetul te sa biir kàddu dégg naa nga ne ba léegi éligible na pour mën a nekk candidat mm-hmm. euh, euh, yan explication nga mën a indi foofu pour nit ñi comprendre dëgg-dëgg. waaw le président Ousmane Sonko loi ak règlement réew mi génneegu ko ci pour mu bañ a nekk candidat. Mm-hmm. kon jàpp nañ ba tey incha allah dana nekk candidat ci suñu candidat. loolu nag damay indi ma yaatal tuuti parce que léeg-léeg euh, position politique yi day indi tiraillement yoo xam ni euh, mën naa yóbbu Sénégal dans le kaw man sama gëm nga mooy élection mënul am Sénégal yu président Ousmane Sonko bokkul loolu nag day dellusiwaat ci leneen mooy yàgg nañ fee coow ni président Macky Sall warul bokk mu tiit caalit ni su ma bokkul Ousmane Sonko bokk day gagné premier tour ca bu gañee dama topp. loolu bokk na ci li tax mu gën a accélérer euh, li mu def nii pour arrêter ko mettre le pays KO reporter élection yi walla leen xew coûte ko coûte su Sonko duma remplacer googu mooy erreur du président Macky loolu nag man damay jàpp ni mën na ko rectifier moom ay conseillers am wax mu di leen déglu nañ wax ak moom xam nañu ni. na mu def ba dugal Khalifa Sall def ko ba dugal Karim Wade ci élection yii di ñëw ni dinañ bokk mën na ko def ba moom mu bokkaat xam naa ne dina jaaxal nit ñi lu tax ma wax loolu parce que am réew kenn du ko sànni suñu démocratie suñu transparence suñu gestion suñu gouvernance àggagul ci Macky Sall bëgg def am nañu ànd ak moom dañoo bëgg moom mu faluwaat wala ñoom ñu falu pour mën a sauvegarder seen intérêt pour mën a sauvegarder seen bopp maanaam seetal seen bopp loolu nag li ñu waxoon ñoom ni moom mooy seen candidat su amee jàmm dina am keneen kuñ ci man di samp mën naa indi problème boo xam ne mën na yóbbu Sénégal sax ci kaw ndax ban na ñoo xam ne sàcc nañu àll réew mi ban na ñoo xam ne dugg nañ ci ay garaawaali ba nañ ñoo xam ne def nañ ay erreur ak bêtises yoo xam ne lañ ko ragal nañu toppee leen ko su mag sal wàcce kon moom mënagul tànn parce que bu tànnee ñeneen ñi liñ koy xoolee mooy bëtu noonu ca nag ki nga xam ne dem na ba am ay milliards yàgg ci biir état bi di gérer nga gérer nga xëy xëy daanaka nekkutoo président parce que dans six mois du dooyal réew mi kooku dina la ñeme dina la yem damay junj nag loolu borom xel mooy xam li may wax ginnaaw président ab du juuf lañu ni ba mu gañee élection yi bañ ko gañee du mooy Abdoulaye ba mu ko gañee lu gaaw gaaw gars yi commencé nañ am lu commencé fomante ñu ko waroon Maguette Diouf rakkam la ñu wax ni moo ko woo téléphone ne ko félicité Abdoulaye Wade balaa gars yi def lañu bëgg a def président Abdoulaye Wade en 2012 bi ko mag Sall gañee wax nañ chef d'état chef d'état major général des armées moo ko woo ne ko félicité Macky Sall nu mu gën a gaawee félicité ko parce que boobu am na lu gars yi commencé ru mënaat bëgg Euh, jàpp ci nguur gi ci lu na xaj ci kon mom bu jubee élection yi à 6 mois des élections 7 mois digënté bi fii ak defalu lu na xaj na fi pouvoir kenn du ko sànni d'autant plus que préparé wul dauphin préparé wul deuxième man def unanimité menaces yi à l'extérieur de Benno mais biir Benno amna na ñoo xam ni bàyyi nguur gi ak dé lañ yamale Macky Sall tan kenen wala mënu bokuma ak wor lañ koy jappé parce que dañ nan dugg nañ bi ci biir mu bëgg a ko bàyyi fi ku ne dégg na Abdou Aziz Diop lu mu ko wax duma dig diig la ngay fitti do ma digal di fitti kon amna lu xew nee na ko maaraan tontu intellectuel maran bind maran def lig lig lig li kon do ma digal di fitti japp nañ da wor c'est-à-dire Macky Sall ay nitam nañ wax ak mom Sénégal gi réew la bo man nañ dialoguer sa troisième candidature n'est pas encore impossible pour la paix la quiétude la la transparence ci ci nous mi na baye président Ousmane Sonko mu ñu man sama la man sama ni Ousmane Sonko élection par élection di am être. c'est pas impossible loi may nag waaye moom moo xool ni euh, waxoon nan du bokk kon dana bàyyi tant que réew maa ngi am jàmm su situation chaotique amul ci réew mi moom du bokk mais attention kan moo ñu wax ne gars yi ay brèche pour indi situation chaotique ci réew mi boobu ñu indi mi mën naa dégénérer ba indi leneen ak leneen kon man sama gëm-gëm mooy nañ delloo si xel yi bëppal xol yi lii ma wax nag bu dee Xalifa Sall sañu ko bañ Macky Sall bokk parce que moo dañu ko xajal képp ku ñu xajal doo buux kenn Abdou Karim Wade sañu ko bañ parce que dañu ko xajal kese ku ñu xajal doo bu kenn doo buux kenn naan ko doo fi doo fi bokkee euh, ki koy bañ jàpp naa Idriss lay doon parce que Idrissa moom daa benn erreur bu am boo xam ne moom gis na ni jot na pouvoir ba pare comme Macky bokkul Ousmane Sonko gëm naa ne du ko xeex troisième candidature parce que comme moom da doon xeex ñu war ko ñu àndoon war ko. amatul sañ-sañ il n'a plus droit à l'erreur di xeex combat boo xam di combat am combat am instant bi moom président Ousmane Sonko moo war a nekk bokk ci élection yi ay ñu dem dugg ci terrain dem liggéeyi ñu dem élection gagné ko mu jeex tàkk président Macky Sall dem ci jàmm la may ragal nag mën naa bañ a am mooy topp yu met yi ay tëjeeg yu ma xamul yooyu ñu koy wax sax dañoo xamul lan mooy lan mooy xolu julit dëgg-dëgg ci Ousmane Sonko xolu julit la yor nee na mag ñi fi nekkoon toppante wuñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne mooy royukaay ñu baax ñëpp julit yëpp toppantewul suñ ci si wul kon moom du toppante le minimum bi nga xam ne nag justice moo ko def juste dina ko def loolu mënul ñàkk kon man jàpp naa ni élection dana am Ousmane Sonko bokk Sonko am bokk du moins sinon Macky Sall dina fexe créer loo xam ni reporter élection yi d'ici deux ans muy 2026 mën na am wala leneen am au niveau de Benno wala bokk au niveau de l'APR parce que gars yi wuñ pour bàyyi nguur gi bàyyi nguur gi ak dee la ñamale donc en tout cas loolu laa ci xalaat sama gëm-gëm la ni ko war na mën a bokk Ousmane Sonko bokk ñëpp bokk ñu dem élection ku gagné ñu teel laa félicité police ak gendarmerie ak armée sécurisée mu jeex tàkk. Euh, am na solo euh, sëñ Saliou euh, da nga wax benn affaire boo xam ni dama xaw a dama xaw a jaaxal. Mhm. parce que la fois passée Ousmane Sonko bokk na ci ñuy wax Macky Sall mënul bokk ci ay élection parce que matal na mhm. tey sëñ Saliou toog ne Ousmane Sonko. mën na bokk même Macky war na mën a bokk day melni suma déggé sa cadre bi da fay melni cadre Khalifa ababakar Sall day dikkaat ci mom lim ne nu ma defa bokk rek baax na naa bokk rek day melni parole bobu mom ngay imposer Ousmane Sonko mom tamit l'essentiel mom li yitel moy Sonko mom na bokk rek euh xam nga dama togon fi seen studio bi mhm. ni len président Macky Sall du bokk ci élection yi mhm. euh, boobu xam naa du bokk parce que pression yi bari na ca ñi koy tek pression baña a bokk sax lañ xalaat la Macky Sall ak ñum and xalaat ne moo tax ñu koy wax bokul ak li tax ñu koy wax mais les forces étrangères bitim rew 400 entreprises lañ fa am yo xam dañu war liggé ci rew mi boo bokkee kaawu naam nangam sangam yoy lañ wax su kaw amu suñu entreprise dañu am problème c'est pas ça liñ bëgg ñom dañu bëgg mettre le pays à kaw pour mëna ngacc suñu pétrole bi suñu ressource ñu ngacc ko hmm lañ ko wax gëmuñu ko benen bi moy waxon na len ni wallu ak yeewi bañ andé fusionné newoon fi la ko waxee ni ay nax la PDS bis bu demee bam député yi soxla day ande yëg Macky Sall pour liquider Ousmane Sonko fi la ko waxee woon c'est impossible Ousmane Sonko ànd ak wa système bi kon ñom la dem retrouver parce que ñoo bokk nday ñoo bokk ba ñu xéto ñu wa système bi man nak jaar na fa xamna li xew bo gisee ma waxee ni waxuma pour nuñ def ba bokk baax de danger wu Macky Sall dëgg-dëgg. nekkul Ousmane Sonko. danger am dëgg dëgg dëgg mooy ñi sàcc milliards yi mi lan la ñu wax ci Covid bi 1000 milliards ana bi lan la ñu wax ci ñeneen ñi pétrole bi ana ana xaalis pétrole bi milliards yooyu gars yi génne da ngaa foog dañ dañ dañ koy bàyyi noonu non non non dañuy préparer seen bopp pour remplacer Macky Sall kut kut kon bu leen Macky bëggee bàyyi noonu en plein désert wóoratul ci moom kon man tiituma Ousmane Sonko ñoom laa gën a bi des mooy euh, li may Ousmane li may euh, Karim wad mu bok may Khalifa Sall mu bok man na may Macky Sall mu ragalu ñu Macky Sall ci ko kon lan moy tax ñu wara bañ mu bok bu bokkee midi Ousmane Sonko la mu ne ko ñun gëm-gëm bobu la ñam mais gagné nit nak transition démocratique da gëna yom parce que bo xëssé gagné bañ bañ xëss féliciter sa sécurité police gendarmerie armée ñëpp ci occupé wu ci loolu moy transition bi gëna a gaaw waaye nag police gendarmerie ak armée mënuñu toujours ñu nekk veille toujours ñu nekk alerte pendant six mois am réew heure bu ñu président bi bokkatul ci élection ci suñu tolluwaay ñun nga xam suñu institution dëgëru ni war dëgëre daanaka dañ naan réew mi amatul borom mhm. donc loolu mooy risque bi kon waxuñu rek pour nuñ def ba bokk non ñun moom quoi qu'il advienne sama gëm-gëm man mooy élection munul am Sénégal ci Ousmane Sonko bokk ci. loolu tiituma ah ko mais li ma gën a tiit mooy Macky Sall mi bëgg a sànni pouvoiram gaa mi mu jaral leen lu nekk parce que ñoom it am na fu fuñ toll woon euh, Ousmane Sonko bokk dee dina jaroon seen bakkan. Hmm. ñeneen ñi Ousmane Sonko bokk jaroon nañ seen bakkan kon gars yi leen ñu intéresse ak li intéresse Macky Sall wuute na ci côté ku mel ni Idriss Seck bu guddoon Sonko bokk. buggul mag sàll bokk loolu moom c'est avéré comme buggu doon ñaar ñu bokk nag am na lu ñu ci jublu biir euh, APR ban nag ñoo xam ne bugguñu Sonko bokk bëgguñu Macky Sall bokk daa am lu tax am na ñoo ne bu ñu sañoon Macky Sall bokk ci élection yi ñu nag seen clairvoyance lu wér la parce que c'est des gens yoo xam ne euh, fidèle nañ li ñu gëm la ñuy wax mu la ñuy def donte mën nañu nekk ci erreur sax mais li gëm la waaw am na ñoo xam ne nag tey bu ñu sañoon. ñu dégager Macky Sall dégager Sonko ñoom ñu ñëwul li Macky Sall doon def ñu continuer nekk buur nekk buur bi mhm. mhm. actuellement Ousmane Sonko mu ngi ci kasso bi ñu koy toppee ay daan yu bare bare bare euh, ba jamono ji suma jumul mu ngi hôpital principal mhm. ci grève de la faim boo xamante mu ngi ko doon amal euh, est ce que njortu nga ne Ousmane Sonko ak daan ñu koy topp yépp mën na cee génn ba bokk ci élection yoo xamante presque 7 mois moo ci des waaw loolu euh, d'abord dama koy ñaaral mu gën seeg jàmm ak salaam man bu doon man ci mën a dépendre grève de la faim dafay arrêté mhm. parce que sama gëm-gëm mooy élection mënul am Sénégal te ko bokk ci Macky nag loolu damay ragal mu imposer reporte élection yi ba 2026 mu mettre le pays ak chaos comme ni ma ragalee mu ñàkk bokk gaayam mi am tiraillement ba leen xew laa ragale mu jéem a reporter élection ba 2026 tamit kaaw am ci réew mi kon man gëwuma ni Ousmane Sonko am na jafe-jafe pour bokk sama gëm-gëm mooy Ousmane Sonko day bokk yoon may na ko ko taxawaay bi ñu war a taxawee dana mat sëkk bu boobaa parce que bul fàtte nag amul benn candidature boo xam ne bu wéeragum la Macky Sall amagul candidat Karim Wade Khalifa Sall dese nañ. donc Ousmane Sonko ba léegi ñu ngi koy topp mais ni ñu koy toppee amagul lenn loo xam lu ko tënk la kon ñëpp daanaka ñoo tolloo position ñoo yam position te bu ñu mën a wax ku gën position sax dama naan Ousmane Sonko moo ci gën position loolu laay wax. parce que nag euh, tooñul Sénégalais yi yéen a Sénégalais yi Sénégalais yi gëm nañ li muy def ànd nañ ci ak moom Khalifa Sall ay milliards lañ ko jiñ te xam nañ système bi ku ñu jox ay milliards nga gérer ba génn mënatoo set. Euh, Karim Wade 130 milliards lañ ko jiñ setul c'est pas possible mun set c'est pas possible Idriss Seck moko la doy mbolé wan question de 45 milliards ou 47 milliards donc ñoñu dañu togn askan wi quoi qu'on puisse dire système bi ku ci nek gérer ay milliards tak nga tak go xamni ne bu ñu toppee bu ñu bëggee tëj la ñom ñëpp a amul ku jaar ci système bi ko xamni ne bu ñu tejj tëj dund tëj amul c'est pas possible donc lool mom nga politique am poste de responsabilité am base ñu jox la ay milliards nga gérer ko ni damaa zen damaa set wecc amul. léegi nag sàcc buy topp sàcc dafa am ndax Macky Sall mu taxawee fii ni am naa 8 milliards foo ko jële mu ne waat dama ko may waat weddi ko je crois que ni euh, ñoom ñëpp a mhm. Mhm. mais li ñuy toppee Ousmane Sonko da cee bëri yoo xamante ni dañ koo cité euh, sénégalais yi. Mhm. ku nekk ak sa version bopp. ñii gëm nañ ni lii ñu koy toppee ni lu ci baree bari moom lu mu def la. muy lu ci mel ni ay appel à l'insurrection ak association xaw ma de malfaiteur xaw num demé non bari nañ bari nañ euh xamna cité ko day day jël temps. ba sax amna yeneen ñu ci dool ci widi ban ban jangat nga am ci lool parce que bu appel à les directions. Ousmane Sonko na wo askan bi ñuy genn ak ci yeneen ak yeneen ba ci suma jumul juumul bi bi ñu koy arrêté ci problème de téléphone bi amna poste bu mu defoon. procureur genn ne Ousmane Sonko li koy topé nek na lo xamanteni depuis euh, mars 2021 la ba ba juin 2023. waaw xam nga dama lay delloo rek ci déclaration kenn si ñoom. Mhm. ministre des affaires étrangères. Mhm. Aïssata Tall Sall nee na Ousmane Sonko bu fi ñuy wax yéen deful dara selon la loi deful dara procureur day chargé rek mais diw sàcc na diw rey nit def nangam ne mais taxul mu def ko ana preuve at nañ ba pare même bu ñu àttee woon sax cassation ngi fi appel yi ñuy def balaa appel yi épuisé rek élection yi jàll. Mhm. kon amul lenn lu ko tënk fu mu nekk nii amul lenn lu tënk Ousmane Sonko pour amul. pour gàttalal la ko li ñuy wax yëpp pour dire la rek bruit la rek programme moom loolu la baaxoo maanaam ñàngal day ñàngal ba nga ni kii bu ñu ko tëjee moom day dee ci kaso bi mais juge moom ci ci lucidité am ci nité am ci dox ci preuve am mais day xam ni lii yaa aucun fondement amul benn preuve boo xam ne mën na tax ñu mën a jàpp nit ki mais da koy libéré donc ñun amuñu crainte par rapport à la loi amuñu crainte par rapport à la justice justice nag lañ wax waxuñu directive politicienne bu fekkee dañoo adopté wu nag ci directive politicienne yi moom bëgg-bëggu politiciens yi ñu bëgg koo def loolu moom c'est ça devient autre chose <laughs> loolu moom euh, c'est à leur risque et péril. mais yéen li ma ci jaaxal mooy président Ousmane Sonko. Mhm. ci boppam moom nee na réew mi amul justice. te damay déglu mhm. euh, ñenn ci ay farandoo bu ñuy analyser ñoom dañ koy wekk ci yoon naan justice nii la war nii lii la war a def lii la war a def te alors que moom ci boppam nee na réew mi amul justice. waaw réew mi. Hmm. Je ne amul justice bu baax justice mais amul justice bu baax. Mhm. système bi. politicien mu tëggee ko ne mooy li wax sànq bu fekkee dañoo dox ci directive politicien nga am politicien ñoo leen dikk ne bëgg. Mhm. éliminer leen ma ñu def ne leen fenn comme lu mel ne euh, bi ko naan corruption euh, à la jeunesse. à la jeunesse loo xam Socrate lañ ko woon. Mhm. ndax daa ñëw indi gëm-gëm bees indi xalaat wan nit ñi da ngeen di gëm seen dem liggéeyi ngir jariñ lu xew dépendrul ci ay ay seen yalla yu bari yi manam ñom c'est des polythéistes ay kat lañ le ñoo ñooñu ñoo jëf ñoo dogal faaw ngeen def yeen seen ba paré le destin grand destin do nga ñew muy li décidé. Mhm. loolu mo doon conscientiser nit ñi nak ñu ni kon day corrompre jeunesse bi jeunesse dañ ko gëm ba paré ñun seen yalla ndax dañu seen da ko wéddi ñaar lañ ko ko jox ko li ñu wax la naan ko faatu. Mhm. dañ ko donc kon. Euh, ay junniy at la man je crois que loolu waruñ ci àtte ci vingt et unième siècle kon boobu àtte baaxul dañoo xool bëgg-bëggu politiciens yi ñu dox ca loolu nag du justice loolu du justice mais bu ñu ko tegee rek ci justice jàpp nañ ni président Ousmane Sonko amul lu ko mën a tere présenté wu loolu moom mooy mooy réalité justice nag ak décision politicienne ñu la dicté nga def ko bokkul mhm. Mhm. am na solo euh, ba ba léegi bala may bàyyi Sëñ Fallou corruption à la jeunesse boobu ci la ñuy daan bañ ko ci daanoon ñenn ci borom xam-xam yi xam nga sunu réew comme ni ngeen ko waxee léegi sunu constitution moom des fois da ngay da ngay waaru ñii ne nañ euh, booba daan euh, existeetul ñii ne ba léegi existe na waa xam nga bu ñu waxee contimax maanaam mooy ku ñu àtte ci gisuñu ko wër nañ ko gisuñu ko ñu àtte ko ñu dañ koy seet bu ñu ko gisee rek àtte ba daanu na nekkatul àtte dañ koy àtte parce que ginnaaw téewutoon ëllul benn argument lu weddiwut bu ñu ko jàppee bu ne d'accord ma dañ koy àttewaat <laughs> loolu moom loolu même ku jàngul droit sax. Hmm. xam nga ni ki nga àtte fekkiwu ko nga bind ni bu bu ma ko gisee àtte ba daanu na day nangu wala mu bañ su nangoo ma tëj ko li ma ko tëjoon su nanguwul nag ñu àttewaat ko ndax man naa am bu défendre boppam man cee génn mais est-ce que àttewaat am na ci. Hmm. kon tant que àttewaatuñ ko. bobu mënatul jàll boobu moom féete na boor compte max bu féete na boor mooy corruption la jeunesse baak nangam sàngam mhm. bu dee bu bees bi ñu indi nag dossier bi nga xam ne procureur moo ko moom justice moomu ko mais procureur lañ ko dicté pour mu def ko téléchargement la boobu buñ ko atté woon sax bu fekkee dañoo dem tappale ba atté ko appel ya balaa muy épuisé élection yi passé kon gisuñu lenn lu mën a tee Ousmane Sonko bokk ci élection yi ñëw am na solo ñu fàttali numéro bi balay suñu fàllu di dellu si euh, mën ngeen a jaar ci 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 bu ko defé ñu leen di fàttali ñuy ànd ak Serigne Saliou Jonn bu président mouvement and euh, saxal deug xamna dinañ ci yaatal après ci bir Mbàkke ak li wër inshallah dañuy bayyi seigne Fallou mu daal dik euh, ak ay question euh, jërëjëf sëñ Fallou sëñ Sall ñu ngi lay ziaré wat mm-hmm. seigne Sall parti pasteur bari ay détenus politiques yu nekk ci pire mm-hmm. ñi ngeen àndaloon seen coalition bi tamit xaaj bépp woon leen ginnaaw mm-hmm. loolu est-ce que du leen néewal doole ba su ngeen dee dem mu euh, am lu jóge ci yéen. waa xam nga loolu ci ko xamul politique mën na garaaw waaye ci ko xam politique garaawul euh, gis nga njanaaw parfois mu yëngatu du koy ruus day baax ci moom parce que da koy oyofal day dindi charge bi nekkoon ci kawam. cee bul fàtte ni. am y a ak mais bokkuñu ak Sonko vision dafa lu Bart Bart de nitu deug la jambar la nit ku bax la bokkul ak ñun ndax ñun ay politiciens la luñ la man de wax am ci je vous dis une chose Barthélémy Diaz dal moy day produit am 60 milliards de budget gis nga gone gu ndaw nga jox ko 60 milliards de foo ko xolloo mu xool fa parce que bu neexoon mag Sall tey manaa def ay effort ba def délégation sociale mairie de Dakar su ko toppoon tey tey su ko bëggee tëj ko parce que ku ne xam na ni 60 milliards mënoo ko jox gonek système bi gonek système bi laa wax de. boo ko joxoon ku mel ne ay Bassirou Diomaye Faye ak ñu mel noonu mën nañu koo gérer sans problème mais gonek système bi nga jox ko ko mun te fexe fexe ba boo ko bëggee tëj doo ko tëj mun mun nekk c'est pas kon xam nañ ñooñu àndoon nañoo ñoom mais. ànd gi mooy lan dañoo demoon ba ñoom ñu tuub nañ nit nag bu nekkee ci diinay xërëm wala leneen politis ba yàgg mu ñëw daa bëgg dugg ci diine islam doo kon doo dugg waaye bu génnaatee delluwaat ca lam xamoon mais du la bett il faut s'attendre à ça en politique aussi parce que ñoom dafa am ku ñu jiital muy Machiavel Machiavel moom euh, dafa yor ab karootam ak yatam nee na ku d'accord ma jox la carotte bi boo d'accord ak man mu jël yar lolu mak nyom Sall yi doxé ñom nak comme ñom tak nañ mënu ñu muñ carotte bi ah faaw ñu nangu sino yëpp dal seen kaw lolu la rek ginaaw ya nga and ak ñom da nga naan seen tuub gi day wërna wala wérut yalla xam wa man dina and ak ñom ci sama ngor dina and ak ñom ci dëgg buñ démé nak ba namaat seen xërem yoyé ak seen pomomee bu ca delluwaatee grawul ma xam ne la dogal wayé nekkul lo xam dina bet nit ku xam politique taxaw moom bu demee dañ naan fekk na ay moromam Idriss Seck ba mu delluwaatee dañu ne fekk na ay moromam euh, ci gàttal daal dañoo am ay rey yu dëgër ñoom ci biir système ba système bi kenn mënu caa nekk ba pare di bëgg cent pour cent ànd système bi parce que du la arrangé. Euh, jërëjëf sëñ Sall xam naa dañuy dellusiwaat tuuti ci problème mu Khalifa Sall ak Karim. Mhm. parce que dañ leen a jiiñoon. Mhm. kenn ki biñ ko jiiñee jugé ko tëj ko. Mhm. kenn ki ñu jiiñ ko jugé ko exilé ko ndax gi dañ ko génnee mhm. ah, ñu gis ne bi ñu delsee dañoo taxaw ne ñoom ñoo defoon te jamono boobu jàpp naa su mu juumul euh, ministre de l'intérieur moo nekkoon CREI mhm. euh, procureur Ndoye moo doon jugé ñu jugé leen tëj leen mhm. léegi bu ñu demee ba ay jamono ñu indiwaat leen ne leen lan leen jiiñoon deful leen ko amul est-ce que loolu état de droit Ah, waxe ci noonu wala juger noonu ci un état de droit est ce que loolu jaadu la wa xam nga dafa am benn problème bu anecdote bu ñuy joxe mooy nag ya xàjjaloo woon pour euh, gaynde ga mën leen a lekk ñoom dem nañ ba xam ni contraire lay doon dem ba rek moo leen mën a parce que kenn ñoom setu kuñ ci bëgg a tëj ëllëg mën parce que nga kuñ ci bëgg tej tëj nga nañ parce que def nga mal gouvernance ay faute de gestion yu extraordinaire parce que nit bu fekke dang ko fal jox ko ay milliards ni ko dama politigal ma lool moy dama sédel xaju rew kon euh, Khalifa Sall ak Karim Wade ak waa système bi ñoom ñepp a buñ démé tay ba andat dañu and pour sauver Sénégal yi nag liñ ci wara a moy ñin daanon dañu dañoo suñu tey ñu bëgg leen a setal ki woon ne moom du laal dërëmub réew mi te ku sàcc xaalis réew mi naal dénoncé ñu bëgg koo xañ élection yi combat population bi la war a doon kon man jàpp naa ni euh, Khalifa Sall euh, Karim Wade Macky Sall Idriss Seck ak ñeneen ñi mel ni ñoom dañoo retrouver wu rek ngir mën a sauver wante pour ki nga xam ne tey moo nar a dagg bu mu jaam gi dox suñu diggante tubaab bi waaye tamit moo mën a indi révolution des mentalités ngir dëgg sax ci réew mi ñu ko ak amugul place ñom ñi dana nag ku man nga samal sa morom ginnaaw mais ragal sa morom ginnaawam nak da am fu muy yem da am fu ñu parce que bu fekkante ni population sénégalaise bi jël nañ ñu wax prise de conscience ni li day dak yaakaar na fofu lay yem loolu dal xamna ni ñom retrouver wuñ pour lenn pour euh, xamni ni setu ci ni setul nak buñu andé bon ken du ken du joxan sa morom waaw mais gis nañ né tas nañ Pastef ci ay këyit mhm. jox nañ notification Ousmane Sonko ne ko rayal nañ la ci liste électorale yi mhm. ñeneen ñi nekkoon ci ginnaam doon wax ñu jàpp leen mhm. su ngeen demandé autorisation pour manifester wu wala def conférence de presse ñu bañ léegi loolu lépp dal seen kaw bopp yéen toujours ngeen ni Sonko mooy nekk seen candidat mais est-ce que tamit baaxul yéen ngeen ut beneen plan boo xam ne budul Sonko di keneen wala yéen naka ngeen di def ba génnee Sonko ci problème waa xam nga nit ñi dañoo foog ne Sonko moo problème mm-hmm. mais Macky Sall moo ëpp ñëpp problème mm-hmm. gis nga borom kër gu nekk ci këram di dóor xale yi di gaañ di wéq mm-hmm. ca ñam dóorut saa wu leen gaañu ne bu leen yónnee ñu bañ lu ne wax ñu bañ na xolaat boppam kon kilifte fa daanaka jeex na la may ragal ci ñee ba leen di dóor ak saaga ka def yëf lu ko raw moo nekk ñu nekk ci wetam ci bu leen def loo ñu lànk parce que ñee dañoo seet wecc bu leen seen papa sàcc loo ñu bañ bu leen defal nak su non ñu bañ mooy ñi nga xam nak ñu système kon bu leen ci tuer le père de la nation nga jël benn groupe bo xam dañu set wecc nangu ñu dox ci ay caaxaan ak tappale nga di leen toroxal moy borom kër gi duma ñi ñu lo ñuy bañ ñu defal ak jubla ñuy bañ ba paré lak ñi nga xam ni leer na ko ni ñi tak nañ comme mom nim ko bëggé lañ koy défé moy wa système bi kon man sama sama sama gis-gis moy que ñi muy tëj ak jëma toroxal mun leena toroxal ci tëj gi daa am fu muy yem dama la ko waxee encore une fois bis buñ taxawee ba candidature yëpp taxaw parrainage taxaw beneen configuration politique dina am Sénégal ci balaa boobu nag Macky Sall gëm naa ne dañu jël ay responsabilités am jéem a xool nu mu waxtaanee waat ngir kaaw du mën am ci réew parce que reporter élection yi moom lu ñu envisagé la mais loolu Sénégal yi ñoo ko nangu li war gën a yomb mooy waxtaan ñëpp bokk ñu dem élection. parce que na jéem reporter élection en attendant ya, mu yeneen solution mais nit ñi duñ toog di la xaar et puis nit ñi dañoo sonn mëntuñoo toog Macky Sall dañu jéewaat ñaari at ci kanam pour dem élection c'est pas possible mhm. ci xam nañu loolu mooy vision loolu mooy gëm-gëm loolu bëgg-bëggam mhm. est-ce que tamit mu pousse élection yi fii ak deux ans mhm. ngeen mën a régler seen situation politique ba revenir at est-ce que loolu tamit baaxul ci yéen wala ci moom lay gën a baax wa xam nga dafa am lu xew gis nga politique calcul yu bari yi ñu def mooy

dara doxul nit ñangi xif nit ñangi son liggey amatul amul lenn loy wax ni mat na ci rew amul lenn lo xam tay am nga ci satisfaction lol nak dañ ko doon muñ ndax am yaakar ci ni président Ousmane Sonko bu ñëwee lepp changer mais ginnaw muñ nan nak ba tollu fi mu bëgg a yaakar nit ñi bis bu tassé yaakar dina yé fitna joo xam ne li taxoon fitna jo yewul moy yaakar ñun amone ne quelques mois moy tax nit ñi quelques mois mo dess pour nit ñi mëna am changement biñ bëgg muy fal président Ousmane Sonko kon

acte terroriste yi génneeguñ ci kenn kudul yéen waa Pastef ndax nee nañ yéen a koy def est que loolu yéen yéenay créé acte terroriste yi wala loolu lu ñu bëgg dugal ci xelu Sénégalais yi la. waa man jàpp naa ne terroriste moom bu ñu koy jiñaate Sénégal ñi ni gis ñu visé ay fetal bal réel à bout portant tiir si kaw ñu faatu ci saa ñooñu ñoo gën a nekk ay terroriste yaakaar naa ñooñu lañu war a gën a mën a joxañ ci ay terroriste euh, bu dee attentat bi ñu wax ne attentat la ca bi. li ma ci jaaxal mooy man gisuma fuñ demee ci kër ñooñu gisuma fu ministre yi defee délégation parce que bu mosaan am dañuy dem waaye ay blessé yu garaaw yoo xam ne peut-être dañ naan accident wala yooyu dañuy dem ci hôpital bi seeti leen ñu wane leen seen mbokk wax ñu gis leen gisuñu tamit koo xam ne jàpp nañ ko ci attentat terroriste boobu <laughs> man ni waaw loolu moom wax dëgg yàlla am noo xam ne sax fooyee conscience nit ñi la fooyee xelu nit ñi la attentat bu amoon Sénégal gii ba jëwul dara kam faw mu am image yu ko wane yu leer nañ faw ñu jàpp ñu ko def faw ñu gis blessé ya faw ñi faatu ñu xam seeni kër ñu dajal leen ñu sarax leen ñu dem jaale ji au moins mais dafa loo xam ni vraiment euh, nguuru Macky sàll gi ñu ci nekk damaa foog ni euh, dañoo jàppoon dund ay nit la jiite parce que bu ñu jàppoon ay nit la ñuy jiite nga xam ne nit ñi dañuy xalaat dañuy utiliser seen raison man ba ni may wax yow nii gëw ma ni lu niroog attentat terroriste am na ba ni may wax yow gëw ma ni. bis ba dañ koo taal am ñu fa faatu amul benn Sénégal boo wax sama mbokk la amul benn Sénégal boo waxal mën na sama mbokk bokk na ci blessé yi mais loo mën ni dégg ci réew mi bu dee gaal gu këpp sax Sénégal li muy yaatu yaatu di nga déggoon sama mbokk bokk na ca mais attentat bu mel noonu état war koo jël saisir occasion boobu dem ca sarax sa jaale ji dem seeti malade yi ah ñu def enquête bu war jàpp ñu ko def mais malheureusement. Sénégal yi dañ leen di embrigadé ci yoo xam ne vraiment amul sens <laughs> xam naa ba li ñuy jox sëñ Fallou rek ñu jël benn question mooy loolu lépp bu amee ñu gis Sénégal ni muy doxee yëpp est-ce que tamit wax ji suñu maam Ablaye Wade waxoon ne feek juróom fukki at samay xale ñooy gouverner sama régime moo fiy gouverner est-ce que loolu nekkuñu ci actuellement nii kon. waaw fi mu ne nii ñoom bu seen pexe jubee kenn mënut a yor réew mi ku ku bokk ci président Ablaye Wade. loolu ñu ngi ci boo gisee retrouvailles yi am dañuy wax retour retrouvailles système bi mais li ci ëpp doole mooy retrouvailles yi famille libérale jàpp nañ bu ñu éliminé woon le président man Sonko ñoom dañu naan Bourd Idi di Karim wala Kandaaw Macky Sall et tout le tout c'est la famille euh, libérale Khalifa Sall moom part da ko rey politiquement pour dund moom pour maintenir ci 60 milliards am yi nga xam ne wala am pour budget pour nekk ci ay prestige vraiment intérêt boppam la parce que yokkal na ko ay noon weddiloo na ko sax ñi nga xam ne ko ans bëgg na <laughs> logique boobu lañ mais Sénégal yi est-ce que dañu bàyyi le président Ablaye Wade mu dox wala ñoom seen yéene en tant que Sénégal bëgg a développer bëgg seen ay ak seen un développement harmonieux ni ko doon fierté loolu la ñu préféré wala dañuy préféré topp Abdoulaye Wade aveuglement je crois pas que nit ñi dañu àgg ci niveau bassesse boobu man politiquement parlant Abdoulaye Wade moo ma yar dem naa ba jiite UGTL au niveau de Touba bokkoon bureau exécutif national euh, pratiquement lu mu umu ci politique bariwul système bi xam naa ne muy doxee mais dama ni système bi ku ci bokk jàppal ni lu ñu tubaab bi imposé la woon teguwul suñu intérêt mi ngi mel ni euh, yeneen diine avant les religions révélées maanaam diine yi nga xam ne dafa ànd ak yonent ak diine yi nga xam ne diine yi politis la euh, yàllay euh, taw bi yàllay ngelaw yàllay nangam nga gëm ko daanaka benn la rek parce que mirage la woon ci mirage boobu mooy gëm loo xam ne taxawul moom la ñu tubaab bi indil ba def ñenn ñi ay aliéné yenn ay assimilé nga xam ne lam ñu tënk ca la ñuy dox donc loolu moom il faut ñu départager wu ci Sénégalais yi am nañ aspiration libéré wu ci domination colonial précolonial boobu euh, post colonial boobu nga xam ne moo nekk ci réew mi. <laughs> jërëjëf euh, sëñ Saliou xam naa dañuy waat euh, sëñ Fallou mu demaat tuuti. waaw am na solo macha allah xanaa di fàttaliwaat gars yi numéro bi rek 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 bu ko defee rek ñu ànd ak yéen seen mission jotaay bi ñu leen di fàttali na ñu ngi ciy ànd ak Serigne Saliou Dione bu mouvement ànd saxal dëgg. mom lañu andal ci émission bi euh, ak ay question yu am solo mu koy tontu tontu bu cey euh sëñ saliw dañuy dik ci arrestation yi nga xamanteni amna ci réew mi fani bari na lool lu top gën nga new mat na 1000 personnes yo xamanteni ni ci ñew ci kasso bi ñu and ak ñu ci bari di def grève de la faim euh, ban ban ban conséquence la mëna indi ci réew euh, surtout ci état bu Sénégal très bien xam nga <coughs> kasso mom ku ci nek ben fan sax ëpp na mhm. situation biñ tollu de situation bu délicate virage bu décisif lañ toll mooy que bu ñu téyewul demuñu ak xel inévitablement li Macky Sall bëggoon doxee am mooy y a une situation euh, chaotique le pays est ingouvernable maanaam réew mi kenn mënu ko gouverner kon damay reporter élection yi wala ñoom seen biir ñu profité def seenu caay-caay mooy ñi ko bëgg a remplacer ca moom parewul pour teg leen waaye ñu nekk ci prison bi ñu faa dëkk que ça soit bien clair am na foo xam bu fa eggee ñoom am nañ ay xarit am nañ ay mbokk am nañ ay dëkkandoo am nañ ay am ngi jàmm am nañu parti am na xam ne ñoom ñu bokk gëm-gëm mooy dañ fi war a jëlee système bu bon bi fi tubaab bi bàyyi kon su continuer moom face à face ñàkk li ñu ñaan nag mooy xel dellusi si Macky xool solution bi gën pour que ñu mën a génn.

Euh, à moins que li ñuy wax nekk lu avéré mooy que nanguwuñu ne bàyyi seen mbokk indi leen lekk mais man dama jàpp nit sax boo ko yoree mu nekk prisonnier nga yóbbul ko lekk ñu bañ di ko lekk teguñu ko ci yoon waroo seetaan da nga war a jóg kon seen mbokk yi la war a jox lekk ñun leen du ngeen duñ leen duñ leen gis du ñu indil lekk prison la ñu leen joxee lekk ci ñoom wuruñ lekk prison ba man jàpp naa ne war nañoo jóg war nañoo wax mhm. léegi nag ah pour l'instant jàpp naa ne li gën mooy Macky Sall di loolu si nit ñi apaisé may ko mu réfléchir ci nan la man def pour ñoo ñu génn na la man def pour président Ousmane Sonko bokk ñëpp bokk jàmm am ci réew mhm. en parlant de apaisement bi ngay wax nii est-ce que tamit jàppoo ne ñi nga xamante tey ñoo bokkan combat bi di ko xeex est-ce que jàppoo dañoo am benn benn benn bàyyidiku ci komba bi non euh, bàyyidiku mënta am loolu mënta am c'est-à-dire mhm. xeex na toll foo xam ne faw akal mi am akal boobu na bu jàllee li am mooy. Mhm. yalla bu songo amaat mais su amaatee du bax ci kenn. Mhm. ce sera regrettable. Mhm. parce que nit mënoo téye ay nit ci prison bi seeni mbokk nekk ci biti mu leeral li ngeen téye du deug du yoon bëgg a ay candidats yo xam ne yalla yaa choisir sélection présidentielle lool mënul nek mais nak mais nak appel à l'insurrection bi ñuy bi ñuy toppee ñu ci bari dañ koy faral di gis ci parti Pastef. Euh, comme ban cas par exemple. appel à l'insurrection yi nga xamante ñu ngi ciy toppee ñu bari. comme tey euh, buñ ñu jëlee le cas de président Ousmane Sonko. appel à l'insurrection je pense bien que ne mooy woote ne ñëw leen ñu def nii ñëw leen ñu attaqué lii li ko Ousmane Sonko utilisé bëri na. waaw non xam nga dañuy jumloo nit ñi. Mhm. appel à insurrection musuma gis fu ko Ousmane Sonko defee wala koo xam ni ku responsable la ci biir parti euh, Pastef insurrection moy jóg leen ñu boudé li fi nekk jóg leen ñu daaneel régime bi insurrection yalla yàlla na yoy yoy ku xéru sax. mais mais Ousmane Sonko bi muy jógee. résistance lay woté résistance c'est un droit constitutionnel. bi muy jógee bi muy jógee Ziguinchor. mom mhm. Ousmane Sonko né nañ leen dem Dakar fofu l'affaire ba di jéxé ji. wa mais effectivement non loolu ce n'est rien du tout nañ dem Dakar fa la jéxé ji moy lan bu démé Dakar résistance fofu lañ ko mën défé ñëpp xamné résister nañ mais boo nekkee dans les régions naan da ngay mais ça n'a pas de sens c'est-à-dire nit tamit il faut ñu xam ni résister droit constitutionnel la droit moo la ne bu ñu lay bul xatal na laa toroxal am nga droit de te défendre de résister légitime défense la nit bu ñu lay attaqué ba sës la sañ ngaa riposter kooku def euh, résistance là mais bu ñu jàpp ni euh, dañu yor rek police gendarmerie yor ay textes tribunaux yaa ngi fii ñu jàpp gars yi di juillet di tëj ba lu nit ñi non c'est pas possible mënu nekk. il faut un minimum de liberté pour les gens buñ la xañé ci liberté bëgg la ko xañ à 100% il faut li seigneur laal wax ni lo yaru yaru yaru bu ndé ba la jaawale ko ëkk na nga yëngu bañ xam nit nga moy dëgg lool moy résistance sinon da lay da ngay masla ñu masal mm-hmm. amna solo mu melni seen ay euh, parole euh, ñi nga xamanteni and nañu ak président Ousmane Sonko day melni ben instant dañuy jël lepp tek ko président de la République président Macky Sall ben instant itam ñu bëgg utiliser droit est-ce que ñaar yoy mëna nek parce que des fois nga ne li lepp Macky Sall la des fois nga jël né ci mais est-ce que bo jëlé lepp ci président de la république la tamit ñu est-ce que séparation pouvoir bobu kon dana dana dana dana amna ci réew kon. wa xam nga euh, tay bo sa kër. Mhm. ku nga am kaaraange kër gi yu mel noonu ñu génn au lieu ñu la kër gi ñu dóor doomi jàmbur mais bu ñu wax kan la ñuy tudd borom kër gi la ñuy tudd ah. parce que bu yàlla ñu jox arme yi ñuy dóoree doomi jàmbur yi ku comprendre yoo xam ne mm-hmm. donc ki ñu fal mu nekk garant la sécurité garant de la paix gardien de la constitution du Sénégal mm-hmm. président ak Sall la tudd mm-hmm. kooku nag su falee ay nit nit ñoo ñu dem recruter ay nervi nit ñoo ñu def ay bavure nit ñoo ñu def loo xam ne teguwu ci dëgg teguwu ci yoon

Euh, faux billets maanaam giraawaal yi waa këram def yëpp yëpp yëpp kenn gisuma tëj ci kenn mais président Abdoulaye Wade au te dañ def ay nit ñoom bay laa wan ak ñeneen ak ñeneen pourquoi ah mais parce que tout simplement am nañ ay ay ay faute yu ñu def ñu sanction mais koo xam ni ku ànd ak yow lu mu mën def ci mbon lu mu mën def ci faute doo ko sanctionné da koy uuf keneen ku ànd ak yow lu mu mën def ci baax nga toroxal

sauver un parti politique sauver un délinquants financiers euh, sauver un dealer, parce que un dealers qui avec un visa ñi nga xam ne dem di wut dañ mais pas mhm. je crois que ce euh, tax ñu ko tudd mais peut-être yëgu ko mais bu ko ont des responsabilité am na solo euh, xam naa bala ñuy ñibbasi ci Mbàkke yi nga xamante ni foofu la euh, Serigne Saliou nekk ci mouvement ànd mouvement ànd soxali dëkk bi saxal dëkk du moins maa ngi jégalu mouvement ànd saxal dëkk euh, saxal dëgg bala ñu fiy dikk dañuy daal di wax ci immigration clandestine bi nga xamante ni actuellement jeunesse bi ñu baree bari ñu ngi ñàkk seen bakkan ci géej gi. Mm-hmm. ban ban jàngat la ci Serigne Saliou am. waa xam nga loolu je crois que lu yaatu la. Mm-hmm. tay buñu xolé geej gi ñu jaar dem ñi ci ëpp ay mool lañ la motax tax mool yi bàyyi géej gi dem Europe ñun bu jëk dañ daan dem di sangu geej sangu ra ngay def gis jëni yi parfois sanga nuru japp jën jën gi dañuy wax les côtes sénégalaises sont des les parmi les plus poissonneuses manam suñu geej geej yi ëpp jën ci la bok mhm. da nga daan ñëw dugg ci gal dem ñu dem port jaay yow mi nga xam da nga ñu and ñom ñoom kese ñu nar la manam ñu jox la li ñu am ñom sa part quoi boba euh, ñom momon suñu guide pratiquement yàqoogul Abdou Diouf mo fi nekkon mais lim signé won ci ay contrat bari goo xam ne na géej gi mais Macky dafa ñew def géej gi propriété maanaam moomeelu tubaab bi danaka ba pare ñu dugg ci trafic bu extraordinaire jamonoy passé dama dem Dakar di waxtaan ak association mool yi ñun dafa am bato yoo xam ne dañ leen indi ñu war a tëmb ci géej gi ñun leen ay sénégalais ko moom prête non la mhm. bañ ko vérifier mu nekk ay chinois ñu leen carrément bato yu duñ ko tëmbee buñ ñenee sénégal yàq gi ñuy yàq jën toll na ci 6000 tonnes par jour tubaab yi da ko ngacc di yóbbu nga xam ni nen jën yi sax dañ ko yóbbaale dañuy buub lépp jën bu sew beeg nenn yi yëpp buñ demee di ko def euh, aliment volaille maanaam li ñu dundalee seen seen seen ginaar yi loolu yàq mun ko passé mool yooyu dañuy dem jënd essance daw ay 100 kilomètres biir géej duñu mën a am aw jën ñoon buñ ñëwee boo defee ñaari yoon ñett li nga jënd ci ci ci essence li ngay frais bu dee maare mais kooku mënatoo resta ci réew mi da ngay torox à ay bor moo la jàpp def mbëkk dem bitim réew bàyyi fi bor sax moo lay gënal beneen bi mooy Sénégal amul industrie ma jox exemple bu gën a ndaw rek dañ doon bay coton samp ay usines yoo xam ne day defar tissu lan moo ko remplacé ay conteneur jóge bitim réew fëgg jaay coton fan la jóge Afrique lay jóge Sénégal dañu doon bay ci kono diggante Tambacounda ak ci sud bi muy Casamance di ko yóbbu Sodefitex ak SNTS gi ci Thiès di ko di ko transformé mu nekk ay tissu ñu koy mën di sol mais loolu amatul mbay mii li waroon mooy autosuffisance alimentaire maanaam lépp lu jëm ci dund dañ ko war am ci réew mi ba para samp ay usine ca àll ba ca tool ya nit ñi xëy dem liggéey wàcc ñi bi si kon bu ñu rayee pêche bi ray mbay mi càmm gi waxaale wuñ ko càmm dem nañ ba foo xam nit ñi sonn nañ coono boo xam ne kuy sàmm sax ñu sàcc ko te sàmm gi du ko def si biir dëkk dèjà li waroon mooy état accompagner leen ñu dem ci àll bi am fa ay ferme yoo xam ni day am ndox ñu leen di bayal euh, li li li li li mën ay dundee loola day amaat beneen création d'emploi mu indi mais malheureusement li ñuy importer ci ceeb c'est des milliards mën na def création d'emploi li ñuy importer ci farine ay milliards la mën def création d'emploi meew ay milliards lañ ay centaine de milliards lañ ci lañ ciy importer nga xam ne ay jur gi bu fekkoon ne mate nañ ko ay usines yi meew lay am ci réew ñun lan lañ am ñun dëgg sax dañ ko importe donc ndaw ñi lan la ñuy mën a liggéey suñu matière première bi dañ koy ŋaj jël di yóbbu ressources minières yi dañ ko naturel dañuy yóbbu bitim réew dem samp ay usine foofa gone yu faw li ñuy samp li ñuy ŋàccee fii di ko yóbbu muy jën bi muy suñu phosphate bi muy zircon bi muy or bi muy leneen ak leneen dem samp ko ay usine foofa faw booyee déplacé wu fii dem foofu maanaam luñ liggéeyee kon politique bi nga xam ne moom la état teg dara baaxu ci maa ngi dégg barki démboo dong daaw ñu ni 400 milliards lañ génne pour emploi des jeunes 400 milliards nga am 2 milliards de mètres cubes d'eau yu ci dex gi di soo demoon érigé def irrigation mais lool limi créé ci emploi da nga am lu kon boy duñ fa buñ amone salaire bu baax duñu 200000 ko fi am do ko rom dem bitim rew mhm. mais bu da nga dem di liggéey di perte am sa atelier menuiser nga mënoo liggéey mënoo am dépense bu état wara def commande ay milliards ñu dem bitim rew jël denku bitim réew bi jël jël jël mobilier bitim rew indi ko ci rew mi mais ñi fi nekk ay ay ay ouvrier lu ñu liggéey kon à la limite bu dee lépp dañ ko importer indi. ñun lan la ñu liggéey kon kay nañ dem fa ñuy importé ji fa ñu liggéey fa xam liggéey am na fa nañ mbëkk dem fa bu ñu demee di liggéey ñoo leen di importé di indi Sénégal loolu mooy solution léegi nag ñooñu kon dañ leen di yërëm mais duñ leen yett donte nag encouragé wuñ kenn ci mbëkk duñu mbëkk ca ku ñu tàggu doo def mbëkk dugg ci gaal di dem bitim réew toog ci biir réew mi xeex injustice bi xeex pour ñu am suñu libération par rapport au néocolonialisme moo gën foofu dugg ci géej gi dem faatu amaana sax doo duñ gis sa bàmmeel ci boo toogee fi xeex ko même bu ñu la faatee am gis bàmmeel on n'encourage personne bugguñu kenn di def bëkk bugguñu kenn dugg ci gaal gi waaye foot bi principalement mooy ñin jox suñu réew amuñu benn politique d'emploi ci ndaw ñi créé wuñ benn benn entrepreneuriat boo xam ni ndaw ñi dinañ ci mën a dënku ngir des ci réew mi lu dul kuñu jël dañaan dugal nañu fonction publique loy liggéey même bo xëyut garaaw nañu la salaire politique di ne produit absolument rien Ça dit dire ñun suñu ñi jitt dañu gumba la fo même ñun ñi en tant que enseignant les médecins et autres dama na ils ne produisent pas produire production deug deug moy lan mais da ngay défar dara ñu xol xamni li nga défar man nañ ko utiliser man nañ ko lekk man nañ ko jëfëndiko mën nañ ko mais ouvrier liggéey du Sénégal elle ne fait pas cette promotion pour ouvrir liggéey amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan loo ci ñun la bàyyi ko ñoo ko liggéey suñu kon on ne produit rien aucune compétence compétence amul benn njëriñ Sénégal danak. li ñu mën daal mooy demal jàngale ji demal faj mais kiy jàng di faju bu lekkut naanu njàng maag faj ma lu mu ko jëriñ mhm. c'est-à-dire c'est duñu bàyyi xel loolu mhm. nous sommes les enseignants ñeneen am nañ ay ay fonctionnaires yi boo xoolee ñaat la ñuy fay ay fonctionnaires lan la produire milliards ay milliards mosoo gis ñu dund ay milliards créer ay barabu liggéeyukaay yoo xam ne lu luñ pérenniser la maanaam luy sax lay doon loolu nag ma jàpp naa ni bëgg dundal économie tubaab bi la pour rey suñu économie. Mm-hmm. am na solo macha allah euh, xam naa ne moom tarkal la bu ko defee rek euh, suñu Fall wumul question ñu daal dikk ci euh, gox bi nga xamante ni moo di Mbàkke Touba. waaw sëñ Fall xam naa <clears throat> am naa si tuuti lu ma ko bëgg laaj si mm-hmm. clandestin yi. Mm-hmm. ndaxte dama gis ne jeunesse bi ñooy def clandestin. bu ñu demee bu ñu leen indiwaatee dañuy rëccu lu doon joxe seen xaalis dem mais fiñ ñu koy rëccoo la taxaw ne buñ gisee beneen dañuy dem euh, ñu gis ci beneen boo xam ne tamit ministre de la jeunesse kenn dégg ko ci hmm. mais lan moo waral tekkaaral bu metti boobu waa xam nga bu fekkee ministre yi politique bi nga xam ne moom la président bi décliné baaxut hmm. ñoom la ñu man mooy def loo xam ne président bi na kontaan ci ñoom ci côté politique mooy recruter ay nit pour ñu politique na coow li bari nañ nëbb dëgg la nga xam ne mooy mooy mooy seen promotion politique maanaam euh, ñu leen di tudd fu ñu toll di leen waxal loolu lañu gën a préoccupé wu que jëfal Sénégal loo xam ne lu ko développé ministre bu ci wax lan nga mën a wax kii maami mbi ligi tey boo xoolee bourse yi nga xam ne jël na ko def ci ay milliards milliards milliards ñan la ko jox ñom wa aper wa gwa ber no ñoy waxal seen bop ni am na ci ay boromi alal yo xamne amna am ci bursi ñom ñoom ñoo gisee seen bop dañu rus bu ñu gisee yu mel noonu ce qui fait que da ngay xam ni li politique politicienne la andi wuñ ay solution structurelle mais ay solution conjoncturelle par rapport à la politique lañu def manam politique bi tollu ñom diko def lu ñu ci mëna a indi coor nañ ko fay tay mais bi wax fay tay ëllëg tak tak da yok gona yi ñëwoon dañuy delluwaat dafa am lu benn philosophe wax muy Descartes nee na nit boo jaaxlee taxaw di wëndeelu benn place du solution boo nee ba réer ba gëlëm taxaw di wëndeelu kese du solution fétal lu benn yoon rek soit nga am réussite wala nga dee loolu ci la booy toll. bu ñu demee ñëw xool seen environnement gis ñu benn changement ñu gën a dugg ci gouffre bi gën a sonn mais dañaa damay delluwaat su ma dee sax baax na c'est-à-dire nit ki il faut psychologiquement nga jàngat ko moom bu ñëwee di wëndeelu day dem ba wëndeelu da koy soof danaa fii naa fi jógee kut ko kut jóge ci mu baax wala mu bon loolu ku ku jàng di gëstu di nga xam ne nit doomu aadama moo moomut ñu tënk ko ci loo xam ne wér na ko amul avenir perte espoir moo baaxul mooy li ma la wax sànq ne yaakaar ji nit ñi amoon ci ni dans six mois changement dina am moo tax réew mi boppam jàmm am mais boo kasee yaakaar nit ki dee sax moo ko gënal yaakaar mooy lépp. waaw mais gis nañ tamit ne xale yi rek. Hmm. ñooy wax ci mbëkk mi ñoom la. ministre yeeg ñëpp di wax. Hmm. mais capitaine u gaal yi wala capitaine u bateau yi tamit kenn du leen dégg est-ce que tamit jàppuñu ne capitaine gaali gaal yi wala capitaine u bateau yi. Hmm. bokkuñu ci système bi pour mën a manipuler xale yi pour ñu mën a taxaw nag riposter ngir jëlaat seenu réew. waa am na ci ñoo xam ni euh, dañuy ñëw defar gaal ñoom demuñu seen mbokk di mut hmm. engagé seen xaalis acca dem leen parce que ñi bëgg dem bari na dangay gis ab capitaine fii moom yorul xaalis. nga ne ko mën na maa defar gaal su ma defaree gaal gi yaa ma koy dawal mën na amul problème boo defaree gaal gi rek encaisse sa xaalis bu fekkee gaal gi da ko defar par exemple 10 million dugal na farew 5 millions mi quinze millions yow boo ci encaissé 25 millions mën nga bàyyi ñu dem mbokk ka defar gaal gi ga encaissé xaalisam daal du ko ci fekk buñu dee moom diwul mbokkam diwul mais li ma la wax sànq. capitaine yi ñu mëna topé baru parce que ay jeune lañu wara liggéey capitaine bu bu teumbat di kaaye à chaque fois xalsam di dig muy xol yaam ak bayam xamni moy wara yor te mënda a joxe dépense ñu yor ko ba mu yor kër mu yor kër soit lan lay am mu ni muñ bañu def ben effort wala mu ni dem jël sama responsable suma déy baax suma déy ma baax na wala mu ni am ma dem fonkar diko ñet choix yi ban mo tane bu heure bu won damay fonkat dajé lima wara am ci rim mi jox mako rek ya nga dugg ci rébellion kon lolu dem gañi dem ñom ñoy cey gañu don de salu wuñ ko bëgguñu ko waye mo taral nga lima am ci joxuñu ko dama koy nangu ji kon rebel lañuy tuddé dañ naan rébellion nga def jappal do ci kasso bi fé nak bo démé sa bop ngay gañ don de bu ñu japp man nga tej mais fa dañ lay bayyi mais tok di joy <laughs> mais lolu solution yàq na sama avenir yàq nañ avenir u sénégalais yi jeunes mais loolu boo toogee di jooy utoo solution du sotti te boo demee ci géej gi boo faatoo ñu yedd la bu ñu jàppee sonal la boo nee man li ñu ma waroon jox joxuñu ma ko li nga xam ne moo la ñu war indi création d' emploi defuñu ko naa dem jëli sama wàll fippu foqate ji ko mais dañoo jàppee rebel rébellion dóor la ci kaso bi. jërëjëf sëñ Saga xam naa ñu bàyyiwaat Fallou mu duggaat ci biir. Mm-hmm. Ah, am na solo xam naa dañuy njëkkante ak waxtu bi rek daal di dellusi ci Mbàkke Bawol

Euh, mouvement la boo xam ne itam euh, dafa am nu muy doxee. Mhm. mooy lu gën a jege gën a yegg arab di wax. Mhm. diggante Touba ak Mbacke département de Mbacke bii. Mhm. moo ñu gën a beneen dëkk bu mën di doon. parce que loolu nag du du du lu ñuy wax rek bàyyi ko ba tax na tey ni ñu toppee Ousmane Sonko bu ñu gisoon koo xam ne mel na ni moom am incarnation yi mu incarné.

bi ñu jógee ci loolu aussi élection législative yi dem lañ soutenir ki nga xam ni mooy listu Yewwi bi àndoon ak wàllu kon wàllu lañu ñu wooteel fii. Hmm. noonu lañ campagnal aussi. Euh, activité de développement aussi am nañ ay groupement de femmes yoo xam ni vraiment ñu ngi liggéey ak ñoom euh, am nañ euh, li jëm ci wàllu jàng ak jàngale aussi ay formation ak encadrement yoo xam ne ñoo ngi koy def kon jàpp naan daal activités yi yaatu na yaatu goo xam ni li des rek mooy les moyens. ci nak moyen mom kep ku nek ci opposition mën su la ko séntu li nga man moy joxe xalat joxe xam-xam wan nit ñi aw yoon ngir ànd ak ñoom liggéey waaye nag bu fekkente dañuy def euh dañu bëgg def politique politicienne daanaka delluwaat ci biir système mo moo gën kon euh, mouvement bi lim war def ci département bi mu ngi koy def c'est vrai que ñi talal tàllal loxo ana ànd ak ñun bëri na mhm. muy ci pouvoir muy ci opposition waaye dafa am lu ñuy doxé man sama gëm-gëm mooy convaincre ma ci politique yombatul ndax boo duggee ci parti démocratique sénégalais xam ab Ablaye Wade def ci politique système mu Macky Sall 12 ans nga fekk ko xam ni ñuy dox ci lu baax ci lu baaxul pour nga am benn leader boo xam ne di nga mën a ànd ak moom ci politique. Mhm. du yomb loolu moo ñu yóbbuwoon ci président ñaan Niane docteur lay ñaan ni ko comme moom ci terrain la dëkk war nañ ko mën jàppale ci législative ci locales yi bu jàllee bëggee ambition national ñu jàppale ko ci dem na ca ci ñun Macky système bi muy doxee gëmuñu ni mën naa développer réew mi ci yàlla ngi ci jox euh, raison ne à chaque fois dañuy gis ni arrière la gëna a jege ko avancé. Mhm. loolu nag système bi mu fekk la euh ñu tënk ko mu tëm ko ci bëgg-bëggu tubaab bi di arrière à tout instant di arrière réew mi euh, ci ñun mënuñoo ànd ak ñu mel noonu loolu daal xam naa ni département moom suñu suñu suñu jéego ñin gën a jege gën a waxtaan ak ñoom waa Pastef la ak opposition bi. parti pouvoir moom wax ak ñoom defuñoo ak ñoom wax dëgg yàlla. Mhm. Euh, ginnaaw ginnaaw ginnaaw Ousmane Sonko ndax euh, mouvement bi am na euh, plan B. bon euh, plan B li ñu waxoon rek plan A Ousmane Sonko la plan B Ousmane sonkoo la. Mhm. du nag dañoo fusé ci nit ki déedéet c'est pas ça projet la mais projet bi yàgg na fi ñoom Mamadou Dia xamoon nañ xamoon nañ projet bi ñoom Thomas Sankara xamoon nañ projet bi. mais dañu ne effacé moom nag ndimbal li ko yàlla jox ba mu jógee ba léegi ñu ko jéem a éliminer ñu ko éliminer ñun dañoo jàpp ni c'est le moment ñu achever programme bi. Hmm. projet bi mooy nañ fexe moom mu tegu ci réew mi bu xësee falu ba pare teggee ku ci part bi jox kenn mu nekk président parti bi ñu préparé ko pour mu nekk président bu Ousmane ko wàccee. Hmm. kon fusé wuñ ci Ousmane Sonko ni moom moo war nekk président éternellement wala trois mandats non non non deux mandats la def incha allah bu faloo rek dindi na. présidence am ci parti bi teg keneen kooku parew parew pour nekk euh, candidat ci yeneen élection yoo xam ne par exemple Ousmane Sonko def na deux mandats ba pare. Mhm. bala may jox Sëñ Fallou damay daal di indi beneen question rek jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñu ngi ci gox bi euh, nga xamante ni ñenn ñi ñu ngi fare ci pouvoir bi ñenn ñi itam nekk ay ay ay député seen taxawaay ci gox bi euh, ku ci mel ni monsieur le ministre ba tey Mbàkke euh, am lu baree baree bare ñu ngi koy jàmbat. ci ay problème dañ am ay ay ay nit yoo xamante ni tey bokk nañ ci pouvoir bi am ci ay ndombal tànk yom solo am tamit ay député yoo xamante ni toujours ñu ngi assemblée nationale te dañu leen di gis sax ñu taxaw di kaasal Mbàkke lu laar lu raar la bu dee dinañ wax sax. waaw xam nga le ministre Gallo Ba maire de Mbàkke euh, moo koy nuyu au passage xam naa ni jàmbaar la loolu on a dit parce que nag bu doon am jàmbaar du du jaar fi mu jaar quoi. Mhm. vraiment parce que ENA la mérite amna xam-xam na et tout donc amna xam-xam ku qui la ku aussi mais dama di wax ni bi dak sey ci mhm. su dañu jox ko dépense ba paré jox possible togg bu neex mukk ko jaraw mhm. système amul ben, ben, ben dekk boy dem commune bo xam ne nañ dem nga am satisfaction mu ta mu nek c'est pas possible système bi fi nek moy outil ma clientélisme politique ay nit yi politique la bëgg yo xam ne ñoo may fal ma nguuru su ma nee ma war a falwaat ñëwaat naxaat leen ci beneen façon naxiñ loolu doon doon doon jàmbaar système bii day day day rey jàmbaar day yàq jàmbaar day nëbb jàmbaar day suul jàmb day suul ndaanaan comme ni ñu koy waxee mhm. gars yi jàng nañ am nañ xam-xam mais la politique de la nation daa am koy définir décentralisation daa accompagnement donc dañ lay diaboliser sax parce que dañ les ngay falu ba nous ñu dans la doo mën a sulib sëpp comme ni ñu koy waxee su ko defee saw askan la ŋaññi de la chasse de la double ci ci ci yoo yow à la limite da nga naan sax su ma yëgoon du ma laaj mairie bi. Mm-hmm. ñoom yoruñu xaalis ay milliards ñu def seen poche man ko jël tabax ta nek gis nga góom bi gën naa xóot duñu fokk system bi tant que jógu fi bu kenn xalat développement national bu kenn xalat développement au niveau local mën ta nek c'est pas possible hmm. ay naxé lay doon liñu ñuy mënuñ ci dara biñu campagne li doon wax mënuñu ci dara lañ ci mënu ko xamni yow dañ la ni politique nationale yo lañ ko jox li nga war def au niveau national mënoo ko def da ngay lebal lebal lebal lebal kenn xamul fu bari yi toll 2000 milliards nga fekkon 2000 quelques milliards yóbbu ko 14000 milliards ci ay bor kooku soo bëggee mairie bu nekk nga ñëw assister ko ni mu war a ci état moo war a assister mairie yi ginnaaw bu ñu amee seen recette ba pare mais du leen assister ci lu bare bare bari bare loo xam ni dañ jàpp ne compétence su mairie la wala ko compétence su état la état foofu dafay jaxase euh, collectivités yi ak ñi leen di jiite donc population yi parfois dañuy sikk maire euh, te xamuñu li xew dëgg-dëgg ay nax la mirage la encore une fois ànduma galo ba waa ànd moo ci duma ànd ak moom waaye nag dañu maa laaj may wax ci xam-xam li fi jar a jële mooy système bii fi nekk képp ku laal ci système bi bu faloo na système bi doon doxee doon lay doxee mooy naa déggal tubaab bi éducation nationale naa ko tënk ci li tubaab bi bëgg sama santé sama environnement sama lépp ni ma tubaab bi wax naa ko gérer naa ko gérer noonu bu ma nekk mukk homme de terrain naay théoriser rek naa am def benn euh, promotion élitiste nga xam ni euh, ku ci toog costume karawaatu di mbel mbel mbel mbel mbel mbel ba boo ko déggee da nga naan kii mën naa defar àdduna mhm. fekk këram gam nekk sax garab sax mënu ko faa jëm bu baax cest à ñun loolu tubaab bi dañoo rey dafa fex ba ñun nekkuñu ay acteur mhm. on est que des ay waxkat rek la ñuy doon quoi ku ci wax nga ni kii mu am xam-xam nangam sangam mais à la limite kenn lu ci nekk homme de terrain donc encore une fois euh, lii daal galo ba moo daal yenn maire yëpp état deful accompagnement bi war amul politique euh, locale bu war accompagner ko def ci ay moyens yi war amul formation bi war donc à la limite population yi ñooy perte rek. Mhm. am na solo xam naa dañuy bàyyi sëñ Fallou mu daal di doxal. balay waxtu bi jërëjëf euh, xam na <coughs> sëñ Fallou waxtu bi xaw nañoo xoj fi ñu toll nii. mais dañoo gis ni fii ci diggante Touba Mbacké mouvement yi bari na fi. Mhm. te mouvement yëpp dañuy dem ba ci biir ñu nekk ay parti politique. Mhm. te it responsable mouvement yi tamit. dañuy ñëw di wax and ak pouvoir di wax wala ñu and ak opposition di wax ba bis ñëw ñu jox leen poste ñu daal di mouvement bi mbax seen mouvement bi ngeen créé du def noonu wa man nak yaakar naa ne mouvement sax deug mom bu re mouvement bu rejoindre euh, régime wala mu bëgg ay poste wala ay neexal kon existé tu yaakar naa ni def nañ ay at at yu xaw a wax deug yalla ndax

tubaab bi ne la arrangé wu ma teg ko ci suuf wala ma tëj samay robinet nga bàyyi ko teg na le donte xam nga moo arrangé askan bi loolu dafay war a jeex ñun amuñu problème ak ma sàmba wala ma dem demba problème bi ñu am dëgg-dëgg mooy kan mooy ñëw indi révolution ci mentalité yi indi révolution ci texte yi fi nekk indi révolution ci doxalin bi nga xam ni moo fi nekk li ñu moom ñu bàyyee ñu ko ñu ole ñu koy yanu di yóbbu bitim réew ñu koy exploité foofu nit ndaw ñi di màbb dem ca usine dafa liggéey ji ñu exploité ko ci réew mi mu nekk lu ñu moom suñu bopp transformé ko mu nekk plus-value ci askan bi ñun loolu mooy suñu gëm-gëm moo tax mënuñoo ànd ak ñi fi nekk ñun moom mënuñoo ànd ak ñi fi nekk ci opposition tamit mënuñoo jënd parce que euh, li ñu gëm dafa wuute ak jënd ak jaay yi gars yi dafa seen bopp ban ñi am nañ tur ñu dal daw dugg fenn ñun bokkuñ ci waaw mais seen mouvement bi ànd saxal dëgg hmm. dëgg nekk kàddu goo xam ne dañuy wax ne soo ko génnee rek mm. ñu si bari danañ ci gis seen bopp mm. ak fi réew mi toll mm. nga xam ne wax fi dëgg dafay mel ni lu xaw a jafe mm-hmm. lan moo leen inspiré wu ci indi saxal dëgg bi ngeen tudde ko seen mouvement waa xam nga ba tey day dellu si rek ci résister gis nga résister lu jafe la pour nga réussir ko à 100 pour cent sax lu yomb tey boo ànd ak fukki nit génn di dem am na ñoo xam ne dinañ taseeg pakk mu daaneel leen ñu découragé wàññeeku mooy xupp bi am na ñoo xam ne dinañ leen xëpp ñu caalit bàyyi la mais la ci am solo mooy nga continuer tegu ci ligne bi nga tegu woon bañ a jàdd benn yoon saxal dëgg nag daa am lu mu supposé mooy que faw nga am endurance ku mën a muñ ngay doon ku nangu ñu lay wor ngay doon parce que nit ñi tamit loolu may aduna da ngay nangu ñu lay wor mais nga dir deug rek sax ci yoon bi faaw ngay nangu ñu naan dafa waye di man duma gis sama intérêt di xëc ci intérêt bo xamni ne faaw nga dégg ñu naan kenn xamul lu mu bëgg parce que politique ku koy def da nga bëgg tedd ci proposer nak ay teranga muy bañ mais jël tay pour yow yak sa teranga doom ak sa sa dara jaru suñu politique ñun suñu vision dafa dépassé cadre naa dem am poste bu baax naa dem ñu neexal ma naa am loo xam ne peut naa ci faj soxla sàngam ak soxla sàngam ñu suñu politique dépassé na foofu bu ñu amul dara ci politique sax te changé li fi nekk ba suñu ay doom jariñoo muy anti système bi moom suñu ressources yi suñuy sët ñëw fekk ñu defar lépp loo xam ne war nañ ko defar pour ñoom ñu mën a tegu ci rampe développement yi dem man jàpp naa ne loolu rek ndab la waaye lekk loo xam ne tey moo war nekk sa teraangay doom ak sa teraangay sët ak say teraangay génération yi di ñëw ñun jomm nañ loolu dëgg boo ci bëggee sax li ma la wax sànq rek da nga am endurance di nga am clairvoyance di nga am aussi benn genre jéggale ak jëlale

ngelaw li momu duñ ko ngelaw li moy lan moy téléphone bi momu duñ ko budé dee tali yi ñi jaar dem sax péage lañ lay wax liggéeyal lako bu la bu doon 10 milliards lañ ko liggéeyal de war ci am ñom 100 milliards mënu do am suuf tubaab yi ñoo yëg bitim réew di bay sam ci sam réew di ko jël ci ay corner di yóbbu ku dem diggante ay euh, noto jobaas wala nga dem ay gundian andu gundian bi di nga xam limay wax wala nga dem sax ci euh, la vallée du fleuve di nga xam limay wax kon ñun lan lañ momal suñu bop lo xam ne ñoo ko lan bu dee càmm li nga waroon am ci cham gi bitim réew nga koy importer bu ñew wa ñun bu ñu né libéré nañ leen ci lan lañ ñu libéré bu éducation nationale ñom ñolay tégal programme nga téggu ci programme dox ba ci kanam ñu la changer ko nga dafa rupture arrière bu kenn fatani Sénégal amul autonomie ci éducation tubaab mooy indi ay projet ak programme am tënk ko pour jaxase yàq suñu xel yi di dagg chaînes yi nga xam ne ci la ñu war a jaar pour développer suñu réew man man jàngalekat laa. programme yi ak projet yi ñuy indil teguñu ko lu ngir duñu attardeel maanaam boo tegee benn programme wala projet dox ci continuer ba yàgg nga gis aw yoon boo demee boo war a gis yoonu nag dañu indi beneen bu bees mu nekk rupture bala nga adapté wu ci loolu rek tàdd nga perte nga yaat kon ñun lan lañ moom. am na lu ci teguwaat mooy dañu dem ba indi nouvel ordre mondial bi nga xam ne mi ngi sox koo ci mondialisation mm-hmm. accord de partenariat économique yow bu fekkente ni da ngaa war a produire war a am ay ginaar kee am junni ginaar nga am téeméeri ginaar bu ngeen bëggee mbëkkante yéen ñaar ci terrain bi même moom bu dee ginaar gu nekk mu am ci benn dërëm sax yow ginaar gu nekk nga am ci ñaar dërëm la muy am ci bénéfice yow doo ko am xam nga xam nga xam déet mm-hmm. kooku su ngeen ñaar mais day wàcc prix rek nga yàqu yaxet bi ci des mooy xoolal Auchan bi ñu indi fi suñ meer yi jaay gerte caaf ci buntu kër sax bu yàggee duñu mën tegg jaay gerte caaf ñu jaay géej ñi jaay xorom ñu jaay leen mun duñu ko am pourquoi parce que Auchan bu yaatoo lépp loo xam ne dañ ko doon jaay ci mbedd bi ñoom dañ koy jaay bu yàggee ñu lan la ñu moom suñ jëmi bopp yi suñ jëmi bopp yi nga am 4 usines xaw ma 3 3 usines au niveau du Sénégal mënoo sax jot ci bi fer li nga am ci fer xaaj xaajal bi waa Mauritanie amuñu ko seen seen koom lu ci bari bari seen fer lay jóge tabaxoon faa yomb lool mais ñun lan lañ am lu ñu am phosphate bi avant ñu judd ñun ñoo ngi koy ngacc di yóbbu or bee or bi jaar du san Dakar day def directement dem dem dem bitim réew zircon bi la même chose géej gi li ma la ci wax sànq ay prête noonu la ñuy def bu ñëwee sëñ Falloo ko moom fekk ab chinois ko moom wala ab ab ab bari na ci. ba pare ñu signé ay accord yoo xam ni milliards yu néew a néew nga xam ne boo ko laajoon sax moo la ñu jox la ko moom seen géej dem di napp ñëw di ko jaay di ko transformé ci réew mi mais yow bu ñu la laajoon cinq variétés jën mënoo koo xam Sénégal li mu yor ay téeméer téeméer variété la boo demee port dañuy rang ngir li ñu waroon moom ñun ñu war koo jaay fii ci réew muy muy jënd dañuy rang di buuxante pour mën a jàll jën mu dem bitim à tout instant day xat waaye ñun lan lañ am colonisation bi ñu def moo gën a bon parce que dañu ko def suñu xel yi def ko suñ doxalin kenn du ni déet ku naa a wax déet ñu man laa ger wala ñu xëpp la boo persister ñu jaar yow feneen donc yaakaar naa ni lii colonisation bu ñu mënoon teg bët néocolonisation bi mu gën a bon téeméer junni yoon mondialisation moo ñuy gën a liquide nag gën ñoo dogali ba pare am na leneen lu ñu indiwaat mooy li ñuy wax la jënd jënd bi nga xam ne ci nouvel ordre mondial la jóge yooyu day xaw a xóot nga xam ne dañuy def promotion wu yi ñan lañu jël ay référence mooy ñi nga xamni fo dong ak wax ju bon lañu def ñom lañu ñuy exposé ci kanam xale yi nga xamni ñom lañu la roy pour gën ñu mëna tardel kon psychologiquement ñom ñi gën di wàcce ci suuf au lieu ñu tegal ñu ay promotion defal promotion ño xamni buñu roy ak ñom développer ñoom buñu roy ak ñom ñu nekk ñu libre duñ ko def dañuy xol ñi nga xamni ñoy xoti xotti war may kilifa yi xoti war may réew mi jël benen facette bo xamni xam ne kilifa yi nak moy ñi nga xamni bindu nañ lu baax tegal ñoo ko fi jaar leen fi loolu dañ ko dindi teg fële théâtre ba ñu indi sax wala téléfilm yi wala film yi lañ cey wane day contraire ak suñu ay valeur day contraire ak lu ñuy xiir ci liggéey dañuy révéloo dañuy indi yenn liberté yoo xam ni ci suñ jëmm yi lay yem dañu lor mais ñu indi mukk liberté boo xam ne dañuy xëcc pour wan ni yoonu liggéey pour ñu am rupture ak tubaab bi donc moo déggee may wax colonisation colonisation li fi nekk mu yées fuuf colonisation bu njëkk ba ndax tubaab bi daal yenn armes yu gën a bon utiliser contre ñu. <laughs> jërëjëf sëñ Sall xam naa ñu bàyyi fàllu ndax waxtu bi xaw naa jege lool. waaw am na solo macha allah xam naa waxtu bi dañoo daal di dab sax nag. waaw fi ñu toll nii moom waxtu bi daal nay mat sëkk. <laughs> dañuy bàyyi euh, si zaalu rek xam naa waxtaan moo neex neex na waaw <laughs> <laughs> macha allah waxtaan moo neex macha allah xam euh, génn na fi teg lii mm-hmm. lañ ci bëggoon pour askan bi mën ci jariñu bu dañuy bàyyi suñu zaalu rek mu daal di tàggatoo euh, ñu daal di jéem a yëkkati jotaay bi ba beneen yoon. jërëjëf maa ngi leen di santaat bu baax di wax ni fii moom. Euh, barab la boo xam ne ñëpp leen war a ñaanal ñëpp leen war a sant bu baax a baax a baax ndax euh, dañu suivre seen émission yi dañu suivre rajo bi ci plan yëpp waaye au niveau YouTube aussi ngeen fay jàllale liggéey bu amoo am solo muy loo xam ni euh, li may wax dama ko wax nii rek waaye yéene nga ca bu yàgg yéen maanaam rupture yi ñu war a indi révolution yi war am ci mentalité yéen yéene nga ca à chaque fois su ma déglu seen émission rek wala ma déglu li ngeen teg mu jàll ci rajo bi wala YouTube beeg yeneen dañuy gis ni am jàng la am jàngale la xam-xam la luy wane yoon pour développer réew mi la ay bañkat ngeen donc li ñu ci encouragé bu baax a baax a baax xam nañu ni bu leen neexoon ngeen doxee neneen ndax xam nañu xam nañ ni euh, dëggu ak doon jàmbaar ak bëgg seen réew moo leen maintenir ci cap bi ngeen jël mais mënoon ngeen a jël cap beneen bi mooy def promotion ñenn ñi nga xam ne yoon nañu ñu joxe kon su ngeen doxee nii ngir dëgg ngir jàmmi réew dox aussi pour former conscience di joxe information bi war dañ leen di sante bu baax di leen ñaanal euh, fépp fu ñu dégg télévision fu ñu dégg euh ñu dégg fa seen télé ak seen radio yi ëlëk bëm mu bokk ci au niveau mondial ñi nga xam dañuy concurrencer euh di leen sante bu baax encore une fois di remercier membres yi euh and saxal dëgg yëpp di sante bu baax ak féliciter aussi ñi nga xam ne tey.

Euh, jërëjëf macha allah am na solo ñun tamit amoon nañ mbégte dañ ànd ak yow ci mission bi. Euh, sëñ Fall bu ko defee rek nga tàggatoo. waaw jërëjëf sëñ Fall jërëjëf sëñ Saliou euh, di la ndokkeel nag ci possibilité bi nga am ak oeuf bi nga am ba accepter ñu suñu invitation bi di ñaan rek mouvement bi nga jiite yàlla def ci ndam ba ngeen am ko xam naa ñuy nuyu auditeurs yëpp auditrices yëpp di leen jaajëfal di leen wax nag na leen émission bi moo demee noonu lépp lu ci waaye dégg loo xam ne rek euh, jaaduwul ñu ngi la koy jéggalu képp ku ci gis sa bopp tamit ñu ngi la koy jéggalu dañoo bëggoon rek waxtaan ak askan bi rek ñëpp ci politique bi ñëpp yeewu ci système bi ni muy doxee xam naa dañ leen di jox euh, dig daje rek si beneen euh, émission seen jotaay bi sëñ Fallou. Euh, jërëjëf Serigne Fallou jërëjëf Serigne Saliou président mouvement ànd saxal dëgg moom la ñu àndaloon ci seen émission jotaay bi comme ni ko Serigne Fallou waxee noonu la rek doon am mbégte doon ànd ak Serigne Saliou macha allah di borom xam-xam waaye itam wane na ko fii ñu ngi doon déglu xam naa ne tey ñu baree bari yoon nañ big ak fooy bind lu baree bari te loolu rek la ci jublu kon euh, lépp lu fi jub rek nañ xam ne loolu lañ ci bëggoon lu fi dëng itam sunu ak ñàkk mat la yàlla mi borom jàmm yàlla nañu jàmmal euh, di leen jox dig daje incha allah samedi dañ fi ñëwaat àndaat ak beneen invité ci seen émission jotaay bi ngeen ci doon ànd ak El Hadji Fallou Fall mu ci doon feggoo ak euh, Serigne fàllu loo jërë ngeen jëf kon woy leen di suivre sunu ay programme bu ñu yëkkatee Baye Cheikh Gueye Ridial dina fi ñëw seen émission ëttu Baye Cheikh jërë ngeen jëf.